détail bu xaw a spécial la tuuti ndax li nga xam ne moom moo ma ci pousse pour ma def ko dafa nekk mbir boo xam dama ci yàgg di xalaat lu bari mooy nit ki ay jaar-jaar yoo xam ne am na ko donte xëy na nekkul lu gudd trop ci ay at mais mu am lu bari lu mu ci gis ak lu mu ci jàngee loo xam ne des fois da ngay xalaat ne xëy na am na ci loo xam ne mën na ko wax jublu ci ñaari mbir benn bi mooy loo xam ne yàlla lu ko baaxee ci xéewal mu jëfe yàlla subhaanahu wa taala wax ne ko wax na ko waxtaane waxtaane boo xam ne du waxtaane puukarewu du waxtaane wanewu waaye waxtaane delloo njukkal yàlla la ndax comme nu abu nadara doon wax naan kaana almuslimuuna yarawna anna min shukri niami an yuhaddata biha bokk na ci yi nga xam ne nee na julli ci jàppoon nañ ne bokk na ci sant xéewalu yàlla mooy nga waxtaane ko ndax genn nëbb gi lu lu la lu la yàlla defal dëppoowul tuuti ak sant ko yàlla defal la yenn xéewal yi nga nëbb ko génne nëbb gi loolu du lu bokk ci sant waaye foofu am na benn danger bu fa nekk tuuti dinañ ko junj ci kanam mooy waxtaane boobu nit di waxtaane loo xam ne xéewalu yàlla la fu mu ci war a yem ak façon nit yi nga xam ne xëy na mën nga ci wax ak ñoom ndax xëy na ñëpp duñ la comprendre al imam abdirahman saabi doon na wax naan fa inna tahaddutha bi nicmati illahi daain li shukriha wa mujibun li taxbibi alqulubi إلى من أنعم بها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن mu ne di waxee di waxtaane li nga xam ne mooy xéewalu yàlla yi daf lay xëcc pour sant xéewal yooyu sant ci yàlla te itam day waral nit ki xolam bëgg ka nga xam ne moom moo ko defal xéewal yooyu ndax xol dañ koo mooñ dañ koo bind ci di bëgg képp koo xam ne day def njëkk di ko jëmale ci moom kon nit ki di wax xéewalu yàlla loolu day tax du ko fàtte di gën a xam li ko yàlla defal ci mbaax ak lu ko yàlla defal ci xewul naka la ci war a sante yàlla ak itam dina sabab timit ak tabarru min xawli nafsi wa quwatiha mooy nit ki xam ne li li mu am wala jaar-jaar yu mu def yàlla moo ko baaxe dimbali ko mu mucc ci ay mbir mais du ci pexem wala du ci kàttanam la la ci jaare la ci mucce pour di fàttaliwaat boppam loolu bu baax a baax te xam ne lépp ci yàlla la war a dellu mais risque bi nekk foofu mooy des fois boo waxtaanee léeg-léeg lenn ci sa dund ci loo xam ne jaar-jaar la des fois yàlla xam na li tax ngay wax mooy xëy na gis ne am na loo xam ne boo ko waxee nit mën na ci jàngi wala war na ci mën a jariñu ndax des fois mën nga ko wax yaa ko xaw a féete tuuti mag ci ay at gis nga ni am na lu bëri lu ko desee loo xam ne war na ci mën a jàng ndax génération yi mujjee ñëw léeg-léeg lu bëri ci wàllu expérience su àdduna manqué na leen mais des fois incompréhension amee ci yenn wax yi boo koy wax ñenn ñi mën nañ yaakaar ni xëy na nit ki di wax dafay wax pour wanewu walla dafa bëri wax di wax loo xamante ni ci dundam war na koo mën a bañ a wax te pourtant ay mbir loo xam ne secret la bu nit war a nëbb ci dundam wala mu nekk aspect bu sensible boo xam ne xëy na eh, wax ko dafa am lu muy lu muy yàqal nit ki ci dundam wala lu noonu waaye lu mu jàpp ne bu ko waxee nit mu jariñu ci la mais des fois nit ki incompréhension mën na ci am ñàkk comprendre lan moo tax nit ki di la wax lim lay wax nii fekk ne xëy na lu mu lay wax pour nga am loo ci jànge la wala moom ci boppam moom mu fàttaliku waat ci xéewal bu ko yàlla baaxee ci mbiram comme lañu waxoon ci wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis loolu benn la beneen bi ci des mooy koo xam ne aussi tamit léeg-léeg yàlla natt na ko ci lu mel ne xasat masal marabul xasat nasalullah salaamatu al afiya am na ci nit ñoo xam ne des fois boo leen waxee yenn xéewal yi wala yenn mbir yu la yàlla baaxe mën na am naqari bu mu leen naqari ci seen xol du leen neex ndax doomu aadama yépp yamuñu ci mucc xol comme lu waa ji yonantu bi alayhi salaatu salaam waxoon ne nitu aljana la te abdullah bin amr demoon këram di ko espionné fi mu mujjeeg moom mooy xam ne ndakate waa ji borom xol bu mucc la kon xol bu mucc lu lu lu am am solo la mais tamit des fois mu xaw a jafe tuuti wax lenn ci yoo xam ne xëy na say jaar jaar la wala ay mbir yoo xam ne yàlla baaxe na la ko nit fekk ne xëy na la nga koy wax neexu ko la nga koy wax neexu ko xolam tàlliw ci léegi bu ko defee du ca xëy na wax lu baax wala du ko déggee déggeen bu baax comme yow la nga ko jubloo woon moo tax xëy na sabab bii tax nit ki di wax te itam yàgg naa ci di ci xalaat demoon naa sax ba ne xëy na ma ci loxum du ñàkk nit ki bind ko beneen bi ci nekkaat tamit mooy xëy na rafetul nit ki demagul fenn dafa goo dara ci sa àdduna ngay toog di wax say dund wala yu mel noonu mais nit ki jublu ci jox boppam importance wala agale boppam fenn ci àggu fa ndax nit ku nekk xam nga sa bopp te itam mi ngi noonu daal ala kulli xaal nit ki wax yàlla lay jël seede ci ne moom xam na boppam xam na dayoom ne àggul fenn deful dara ci dundam ku doye di la tamit ci kanamu boromam subhanahu wa taala di ñaan yàlla mu dolli ko sutura di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu mottali ko leneen li ci nekkaat mooy jublu comme li ma wax léegi xëy na jël ay njàng ci parce que nit mën na la dégg nga wax ci sa dund lenn loolu nekk ndax xëy na moom jaar na ci lu xaw a mel noonu wala fekk na ko mu nekk ci ay tolluwaay yoo xam ne jamono yoo xam ne lu mel noonu lay jànkonteel xëy na xaw a manqué tuuti la ay jaar yoo xam ne mu jànge ci mu am lu mu ci kon war na gën a muñ wala yu mel noonu beneen bi ci def tamit mooy mën na encouragé ñenn ñi parcours boo xam ne waroon nañ ko bëggoon nañ ko suivre te jàpp ne xëy na mën mënuñu ko parce que xëy na dafay compliqué wala dafay jafe ñu dégg la nga wax leen loolu gën leen encouragé ñu gën a góorgóorlu ci loolu yàlla su yonent bi alayhi salatu wasallam waxoon ne ihris ala ma yanfauka wastain billahi wala taajaz doo wax ne mënuma da ngay jëm rek ndax ci tant rien na rien da ngay jëm dimbali ko yàlla subhanahu wa taala te bañ a xaddi wax ne non lii duma ko mën loolu kon yooyu noonu yu bëri ci yu mel noonu tax na ma gën a xëy na Ah, wax li may wax nii enregistré ko xëy na du ñàkk am ñu ko dégg du ñàkk tamit bu ko nit ñi déggee kenn ku nekk ak na nga koy interprété am na ci luy ñëwaat ci yow nekk feedback loolu bu boobaa na dañ ci mën a jëriñu waat yow sa bopp pour bu beneen yoonee li ma ci jublu mooy nettali lenn loo xam ne ci sama jaar-jaar ci léegi bi ma xawee gën a nekk ndaw tuuti ba bi may yàlla di baaxi may commencé di góorgóorlu ci na ak bi ma ci commencé góorgóorlu góorgóorlu sunna liñ ci namm li ma ci namm mooy xëy na terme boobu léeg-léeg ñenn ñi dañ koy interprété ci façon boo xam ni xëy na ŋàññi si ñuy wax loolu lañ ci jublu mais loolu warul naqari kenn ndax góorgóorlu ci sunna mooy jéem a xam yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci njàngaleem ci sunnaam nga tënku ci loolu bañ a topp ay bidaa ak ay yoon yoo xam ne ay nit ñoo ko xàll moo lay tàqale ak njàngale yonente ba alayhi salaatu wasalaam loolu rek la ci nit ki nam jamono bi nga xam ne commencé na yàlla baaxee ma njub googu ma ci góorgóorlu commencé soobu ci yoonum njàng ba nu ma jàngee ba dem université ba ñëwaat Sénégal Euh, yu mel daal trajet bu mel noonu xëy na am ci lenn loo xam ne dinaa ko ci incha allah xëy na doo mën a trop dugg ci yenn détails yi des fois day xaw a doy waar tuuti fi ma koy commencé mooy gaañu sama yaay en 1985 fekk boobu maa ngi nekk école primaire bi muy dund lañ gënoon jege nekkoon ak moom yàlla na ko yàlla jégal yàlla na ko yàlla yërëm mu nekkoon yaay joo xam ne yaay ju mënoon njaboot la ku jege woon ay doomam la doon ñu toppatoo bien que fiñ fiñ fiñ dëkkoon juddoo fa yoroo fa muy pikin tali i ko taf ci booru booru cité pépinière foofu lañ dëkkoon ci kaw tali bi fa la sama papa amoon kër euh, foofu xëy na xawoon na rëb tuuti surtout ci jamono yooyu parce que banlieue la boo xam ne dafa xaw a rëb jaxasoo tuuti euh, xale yi di dund foofu ci man xaw ma xamatuma suñu jamono laay wax ñun xawoon nañ am liberté ci seen bopp dëgër fit mën a def yoo xamante ni lu ci bëri seen waajur duñ ko xam jamono yooyu xëy na moom téye woon nañu torop ñu toog ci kër gi suñu génn bëriwul woon suñu buntu kër chaque fois dañ ko doon delloo te loolu comportement bu raar la ci fu mel noonu dëkk bu mel noonu euh, taxawu doon nañ ci misang yàlla defoon jamono yooyu daaw ma génn di premier yi wala cinq premier yi nekkoon responsable classe di jàng ci école boo xam ne mi ngi nekkoon foofu tout près rek ci boor ginnaaw cité pépinière bi noonu fa lañ doon jànge waaye yàlla def bi nga xamante ni gaañu na en mille neuf cent quatre-vingt-cinq fekk ñu commencé di dëgër tuuti ci la suñu jàng commencé yàqu man ak sama grand frère bi nga xam ne ñun ñaar ñoo doon ànd euh, moom moo ma gënoon dëgër fit parce que yu bëri da doon def man ñemewu ma ko woon def ci jamono boobu bi nga xamante ne gaañu na sama papa da daan voyagé lu bari mais laata sama yaay di gaañu fekk na mu ñëwaat toog ci kër mais suñu éducation xawoon na ko dépassé tuuti parce amoon moom amu ko ci loolu waraloon mu xaw ko jaaxal tuuti ñu nekk ay xale ak suñu beneen mag bu jigéen euh, xamul daal daanaka nu ñuy def ak yeneen ñaar ñu ndaw ñoo xam ne sama yaay bàyyi na leen sax ñu ngi gaañu boobu mu ngi daanaka xale bu ndaw la liir bu la waaye ñun ñëpp mbokk yu ñu moo leen mujj ñoo leen jëlaat sama mag bu jigéen bi comme nekk fa ñu jël ko moom xëy na euh, sàmmal ko tuuti njàngam njàngam continuer man ak sama frère bi daal sama grand frère bi ñoo desoon foofu bi ñu fa desee tamit yàggul dara ñu yàq suñu jàng bon euh, xëy na euh, comme moom affaire jàng xamu ci lu bari parce que beneen métier la doon de sama yaay amoon na tuuti niveau ci jàngam jàngam xawoon na sori tuuti doon na jafe tuuti mu contrôler suñu jàng dañuy ñëw rek luñ ko wax ne ko loolu la mu jàpp ko des fois dañuy xëy dem taxawaalu ji fu mel ne ay stade Amadou Barry par exemple wala dem ci yenn milieu yi ba yenn heure ñu ñëw ne ko dañuy dañoo dañoo amoon éducation physique du ko du ko mën a xam ba xam demoon nañ jàngi wala jàngi ji woon noonu lañ commencé di def noonu ba bi ñuy àgg seen de presque jàngatuñu man jàngatuma moom mos na redoubler après jàngam arrêté man mosuma redoubler mais bëgguma woon redoubler parce que dama ragaloon ne su ma euh, defaat même classe bi dañ ma xaw a sonal tuuti parce que maître yi nga xam ne ñooñu jaan jàngal thème de xamoon naa ni ñu doon def redoublant dañ la doon sonal quoi bu ñu posé bu ñuy posé question yow dañuy def interroger boo tontuwul ñu wax la ko ci classe bon loolu ma bi ma defee CM2 jàllu ma ma ñëw ne ko vraiment ki jamono boobu njàng mi baaxoon na amoon naa tamit intelligence wax dëgg yàlla mun a waroon na mën a jàng bu baax a baax mais xam nga rek bu fekkee aussi tamit xale nga xamaguloo lu bari ci sa àdduna xamuloo njàng ban njëriñ la am ci sa gisuloo tamit ku lay teg pression wala léeg-léeg li ngay sàggane mooy xëy na du la amal njëriñ ci sa dund loolu tamit xëy na jàng bi fii ne bi ci nit bu nekkee xale day ñàkk tuuti ci yenn yi ba tax na xale laaj na ko encadré ku ko jege di ko teete ci yoon bu mu war a jaar loolu ute na trop ak esprit bi ni am léegi ci jàpp ne xale bi da nga ko war a libéré mu choisir boppam xale mënta choisir boppam léegi bi nga xamante ni demee na noonu ma ñëw na ko jàngatuma parce que dama def entrée en sixième awma mu ne ma kon baax na foofu la ci yem bon te pourtant xëy na suñu directeur école xamoon na ko bu baax wala rem la woon mais yàlla def demu fa consulter ko laaj ko sama dossier dara bi ma toogee noonu commencé di chemin yaakaar ni léegi damay toog foofu Dakar di taxawaaru par suñu benn mbokk bu jóge ci àll bi booru Saalum ñëw fa kooku seen kër fañ dëkk ci booru Gosaas la Mbar mës naa fa dem vacance benn yoon bon bi ma fa demee vacance ay deux mois la mu neex lool ci man parce que si boobu mosuma koo xam di si wat moom bi mu ñëwee gis ma foofu jàngatu ma dafa wax sama papa ne ko na na ko ko ma ko jox pour mu yóbbu ma foofu sama papa ne ko acca parce que moom gis nañ loolu occasion la pour ma dem ci àll bi parce que ma toogee foofu xëy na damay yàpp wala yu mel noonu man bëgguma woon dem sama bëggoon rek Dakar mu ne ma nañ dem ñooñu frère ay frère lañ ci ma parce que seen papa ak sama papa ñu bokk léegi bay seen papa lañ ma tuddee Mor te itam seen papa moo ma woon sam moo fetti woon kaw ay at sam sam papa moo ko yar daanaka moo ko yar ñoom tamit liñ ma magee bari na donte ay ay mag lañ ci man am nañ ay doom yu ma mag ñu yóbbu ma fu ma dem foofu kër gu mag la kër gu mag la sax kër famille bu mag la euh, ñu nekk fu ma nekk fa commencé di ci mbañ mi yàlla defoon na ci bi ma nekkee xale yàlla baaxe woon na ma wàllu kàttan ak sawar lu ma doon def tamit facilement dama ci daal dama koy daal di gaaw a mën loolu yàlla defaloon na ma ko ma dem foofu di bay dama daal di a mën liggéey yooyu bien que xale laa woon waaye naan dama koy def comme liggéey mag te xaw ma ko woon vie boobu musuma ko dund mais commencé di yor ay fas Euh, di liggéey ci tool yi liggéey yu metti sax parce que ay tool yu mag a mag lañ yoroon yoroon ñaari fas yu góor ak benn fas bu jigéen fas bu jigéen bi wajan bi man maa ko yoroon moo nekkoon moo nekkoon liñ ma jox fas yu góor yi surga yi ñoo leen doon yor bi bu pare man presque fas te xam nga yore ay a metti surtout ci at boobu âge liggéey fa liggéey bu metti waaye nag jànge naa fa lu bari tamit ci ci sama àdduna ndax teel naa fa tumuranke ci kër gu mel noonu nga nekk fa xëy na wala di nga tumuranke daal ak lu ci mën a am tumuranke tuuti sori say waajur sori fi nga xamoon sori li nga xamoon euh, jànge fa lu bari def fa ñaari at yoo xam ne ñaari at yu metti woon la ci man feebar fa ay feebar yu metti jànkonte fa lu metti waaye tamit jànge ci lu bari ci ay situation de survie yoo xam nit ki da ciy jaar nga xam ne des fois nga toll ci ay difficulté ak ay jafe-jafe yoo xam ne des fois yàlla moom moo lay baaxee nga génn ci Euh, léeg-léeg nga toll ci ay jafe-jafe ak ci benn yenn ay mbir yoo xam yu bëri daal yoo xam nit ki dina dem ba lu bëri ci dundam dina mën di jël boppam en charge du toog di xaar kenn ci yenn mbir yi loolu yu mel noonu nit ki jàngee na ko fa teel fa jàngee tamit liggéey ak tumuranki ak defal sa bopp yenn yi bañ rek toog seen kër nekk sa wetu waajur lépp ñu la koy defal nga yaakaar ni te boo te rose tumuranke boobu tumuranke bu xawoon metti la moom tamit bëgguloon ma dem bi ma fa defee benn at sama frère bi def ay pression sama papa ne ko dafa bëgg a ñëw foofu moom tamit ñëw parce que xamul foofu dóor rek may wax di nettali mu yaakaar ne foofu tamit xëy na xam nga rek kumpa la ci xale ndakaaru boo xam ne xamuloo àll bi mu ñëw mais bi mu ñëwee gis liggéey moom dafa xawoon ñëw kàttan tuuti attanu ko woon benn at fa def ñu yóbbuwaat ko Dakar man nag ñëw bi ñëw delluwaat noonu mënatuma ko woon supporter man tamit ma ne damay dem quoi te comme dañ ma fa bàyyi woon bëgg a bàyyi ma fa continuellement ma continuer fa pare ma woon pour toog fa benn jour la <laughs> laa jàng situation bi gis ne kër gi wét na wala ma dugg ci eh, fi nga xamante ne magasin bi nga xam ne fa lañ doon def gerte gi parce que bu ñu bayoon gerte gi gerte xottu bi dañ koy jaay mais après am na soo ñu koy xool defaat ko jiw mooy doon mooy nekkaat semence bi jiw boobu dañ koy tànn defar ko ma rafet gerte boobu noonu ci laa jël jël ci benn saaku bu yem jël jël fas am na benn fas bu bu bu am doole bu mag bu nekkoon foofu mbongol la woon xaw ma mbongo la ñu xaw mbongol la waxati fas bu ñuul la bu am doole étoile lañ ko tuddee woon ma teg ko ci kaw fas boobu dàq ko daal ci ci marché ba bi ma demee ma peese ko jaay ko bi ma ko jaayee lépp lépp mi ngi nekk euh, mille quatre cent soixante quinze lay war a tollool mille cinq cent soixante quinze ma daal di koy jël dellu si waat si kër gi takk fas bi dugg si néeg bi takk samay bagage daal di tëpp mur bi ma tamee meer tamit daw ma ci garage bi damaa génn dëkk ba dem ba génn dëkk bi taxaw foofu di xaar oto yu yooru mooy oto yi génn di dem jëm Mbàkke ma gis benn oto di ñëw bien que dafa feesoon ma wax ko ne ko Mbàkke ma quatre ma daal di bi ma yëgee sama place dama lang li taxoon ma def loolu tamit mooy bëgguma woon dem ci garage bi ñu gis ma parce que sama frère dafay roon oto di daw te su ma fa demee mën naa ko faa romb ak sama saaka Euh, bi may dem sax maa ngi dajeeg benn waaye ma booy yow dëkkuloo kër diw bëgguma tudd turam ma ne ko laal na woon ankay mu ne ma yow foo jëm ni ma ne ko non man daam fu may dem ma booy yow mi daa mel ngay daw bi mu waxee loolu nag <laughs> ci la daanaka ci laa tiitee ma ne kii est-ce dem dénoncé ma ci laa ci laa jël foofu oto dem euh, Mbàkke bi ma wàccee Mbàkke laajte garage de gaz ñoon ma ko dem jël sama francs bi ma wàccee poste Thiaroy benn soixante quinze francs laa yor bon mais euh, la ma dox xam nga boo nekkee jeune nekk xale boo ngay xaw a sawar dox bi dérangé wu ma dox ñëw bi ma ñëwee aussi sam papa ñëw bi ma ñëw neexu ko woon ci le ma ñëw tàggawu ma ko ak yu mel noonu meroon na ci lool dëgg yàlla guddi googu fanaanuma ci kër ga suñu këru famille sama famille ñoom yaay usine bentali fa laa dem fanaan fa am na sam mag boo xam ne moom fa nekkoon naka jekk mag moom ñoo bokk yaay eh, moom moo ma man bi xëyee moom tamit kuñ daan jàppale la biñ nekkee xale sama yaay gaañu bàyyi ñu fi comme moom da doon liggéey moom moom daan jàppale ci di jàppale daan na ñëw di presque chaque deux yu nekk ci weekend moom moo ànd man biñ ñëwee mu ñëw sama papa ci suba bi ñu toog fa di waxtaan wax ju yàgg sax pour naka la def ba ma bañ a waat ma toog comme xas naa ba ñëw bi ma ñëwee tamit gis naa ne situation kër gi changé na parce que ñëw naa gis ne néeg yi loué ay néeg am na ñu fa dëkk ci fu fa dëkk ci kër gi koo xam ni moom njabar lay def te moom loolu dérangé wu ko parce que moom xëy na yoonam nekkul ci loolu waaye kooku moom njabarkat la léegi la xëy na fa lay toog di waxtaan waaye wax ci yàlla rek moo tax yàlla lay seedel yàlla moo tax mosuma ko gis mu fay mu fay mu koy defloo rien du tout ci affaire njabaram yooyu mais dafa daan toog di waxtaan ak moom ak yu mel noonu xëy na comme dëkk bi fii rek dañuy jàpp ne yooyu aayul dafay seetlu ak yu mel noonu mais góor gi njabarkat la woon fa lañ doon waxtaane ci néegam mbir sama mbir ba benn nit ku fa toogoon doon seetlu moo proposé ne comme ñëw naa nañ ma bàyyi ma toog léegi ñu utal ma liggéey su ma amee métier bu baax ma bañ dellu ma jàng métier ñuy wax loolu yàlla nattu ma ba dal ci ñu dem dugal ma ma jàng mécanique ma nekk mécanicien ci garage yi nga xam ne ñu ngi woon foofu ci booru euh, booru syndicat bi garage yi nekkoon foofu di réparer ay clando affaire yooyu ay auto essence daal ci lañ daan liggéey ma dem foofu garage day am tôlerie am tamit euh, électrique mais day am mécanique ah, day am tôlier bu nekk ci garage bi ak électricien ak mécanicien man mécanique laa doon def foofu tamit sonn naa fa jànge naa fa lu bari parce que garage yooyu dafa rëb amul éducation bu baax xale yi fa nekk dañuy yàq seen i jikko mag ñi fa nekk ñu ci bari du ñëpp mais dañu irresponsable duñ jëflante apprenti yi ñor jëflante bu rafet dina la jàngal yu yu bari ci sa àdduna waaye tamit dina yàq lu bari say jikko ci condition yi nga xam ne moom lañ nekk woon foofu bi ma demee foofu def naa ne bi tellement ci xëy na màcc tuuti teel ko comprendre teel a xam liggéey bi yu bari ma teel ko mën ba ñaan ñi sax dañ doon laajte ndax dama mos a def mécanique feneen avant nga ñëw foofu ma def fa tamit lu war a tollu ay xaw ma ñaata at laa fa nekk def sa mécanique boobu bi ma defee mécanique foofu wax dëgg yàlla tamit doyoon na waar trop parce que ci yu bari la lay dugal voilà si yu bari la lay dugal nga teel a jàpp ne léegi mag nga fekk ne voilà commencé di jàng tux xam nga Pikine rek dafa doy waar parce que foofu ñun condition yi doon depuis bi nekkee xale bu ndaw dañ daan dem ci tool yi nekk foofu àllu meew fa lañ daan fréquenté am na benn góor gu dëkkoon suñ koñ boo xam dafa amoon tool loolu moo nekkoon suñ prétexte suñu fay dem tool yooyu miinoon nañ ko trop loolu lañ fa daan def jël nañ ko foofu foofu am na dex bu nekk foofu boo xamante ni dafa ndox mu ñuul moo fa nekk dañ fa daan dem di ci sangu ci toolu jàmbur yi di def ay doy waar lu ñu ko daan def dañ daan ñëw ba fi ñuy tuddee fajaa léegi jamono yi foofu dara nekku fa lenn ñëw bu foofu léeg-léeg ñu dem géej côté géejawaay bi léegi buñ demul foofu ñi ngi wala buñ demul syndicat ñi ngi ci ginnaaw terrain fi ñu daan tuddee terrain central muy Alassane Djigo foofu ci nit léeg-léeg fa lañ daan wala ñu dem géej moo wala ñu dem euh, Kancaaro yi Kancaaro yi tamit fa daan nekk fa la wala ñu dem seetaani baara buñ demee taxawaalu foofu ba yenn heure yi nga dem Gray Gray mooy comme militaire yi seen añ yi seen reer yi nga xam ne dañ teelal ay six ngañ la gaay garaay garaay gaay daw dem bu ñu demee boo ñëwee militaire yi dañ dañ imaam yi seen bool yi pour nga yóbbu ko parce que seen camp dafa rëyoon trop boobu camp bi jàppaguñ ko ni daggatee ko daggatee ko dafa rëyoon dafa rëyoon trop sax daanaka diggante caaro yi ngay jógee ba jàmm gan la woon ba poste caaro yi léegi bu nga xamante ni bi dem na da ngay dem foofu gars yi dañ lay euh, jox bool nga yóbbu boo yóbboo bool léegi da ngay taxaw xaar bu gars yi desalee cere cere léeg lañu toog affaire nga nga jël ko dem dóor ci léeg-léeg tamit dañuy wax booy jimbo jimbo booy jimbo léegi léegi booy yi dañuy ñëw boo ñëwee da ngay jënd jimbo parce que comme seen lekk dafa lewet ñoom dañuy bëgg léegi def ci jimbo pour mu saf léegi booy yi dañ ko naan da ngay jënd si jimbo ñëw taxaw mu léegi dóoree ba mu yàgg ñu ne booy jimbo jimbo léegi boo amee jimbo da nga ñëw joxe sa jimbo nga taxaw ñoom ñu safal seen seen seen reer bu ñu lekkee ba pare après ne léegi ana booy bi joxoon jimbo nga ne mën a léegi ñu ne la nga jël affaire yi dem yóbbu yàgg say xel ngeen lekk genre yu mel noonu lañ daan def dem foofu wala kermes am ñu nekk fa daanaka foofu daawuñ fa jóg bu ñu ni faara am na dañ daan daw dem ba àgg foofu lu ñu dox dañuy daw ba àgg yooyu tamit am na lu bëri lu lum lay formé ak wala ñu dem amadou bay bu géejaway foofu tamit amoon na piste bu yaatu bu amoon fa wax nañ ko dëroon gu ko fa lañ daan dawalee troto troto tamit dina jafe mu expliqué ko xëy na ku ko dawal xam nga ko fa lañ daan dem luyo troto trois euh, tours trois tours trois tours dërëm nga wala nga dem luy ji vélo yooyu yëpp da koy teel a jàng boo dëkkee woon ci jamono yooyu foofu noonu da ngay teel a mën ay dawal vélo feey parce que feey yooyu yëpp foog nga mën ko parce que boo dëkkee foofu te mënuloo yooyu daanaka doo doo génn daanaka ay kii de survie yoo xam ne foog nga mën ko parce que comme chaque fois ñu ngi géej boo mënul feey gars yi dañ lay sonal buñ demee dañ lay dañ lay naqal di la nuural affaire yooyu léegi da ngay mën mën feey mën ci ndox lu bari teel ko mën parce que dañ fay dem dafay bari daanaka tàngaay bi chaque jour gars yi ñu ngi fa maaro la ñuy wax wala terrain bleu wala yu mel noonu pour bañ suñu parents xam ne fa la ñuy dem depuis bu ñu nekkee ay xale yu lañ fay commencé di fréquenter di nga di nga tàggatoo ci wàllu xëy na euh, yu bari di ko di di nga ci tàggatu di am tuuti benn genre forme physique bu am ci yow boo xam ne ngay mel ne sportif ndax foo yi ngay foo yëpp ay foo risque la ay foo njàmbaar la lépp tamit ay risque la lépp ay risque la yoo xam yu garaaw nga ci mën jëlee wala nga gaañ sa morom wala yu mel noonu mais chaque fois ci genre fo yu mel noonu la ñuy nekk chaque fois ci genre fo yu mel noonu la ñuy nekk buñ nekkee kon ba tamit kenn du dégg fa la ñu nekk di petit camp wala ñu def deux équipes wala ay njol daaj la fa gars yi di def ay salsalato affaire yooyu la fa gars yi di def yoo xamante ni bi léeg-léeg ci ay xeex lay mujjee wala gars yi ne tom tom commencé na gars yi tasaaroo temps yooyu kër yi amoon yi amoon yi amoon télé bëriwul ñaari kër ñetti kër mooy am télé bu benn dessin animé commencé ay buuba wala ay tom wala yu gars yi dañuy tasaaroo ci kër yi fu waaye xam jaar dégg nga léeg-léeg nga dugg ka gaa ne eh, génn leen génn leen génn leen nga génnaat <laughs> lu ne nga wax ko booy génn di di xultu dem beneen kër booy am nañ tele ngeen dem foofu toog seetaan ñëw fees dellu saalu jàmbur seetaan bu jeexee ngeen ngeen dem seen yoon yu mel noonu ci yooyu lañ nekkoon biñ gënee nekk xale boobu biñ jamono yi may def mécanique fa commencé dëgër tuuti commencé xàmme commencé di am yeneen comportement dugg ci yeneen yoo xam te nit moo gën a doy waar wala yooyu xëy na dina xaw a jafe ci nit ki di di expliquer yenn yi xëy na du ñàkk beneen yoon incha allah mais yooyu moom day xaw a doy xaw a saayire tuuti comme nañ koy waxee. ni mécanique bi aussi bi ma ci nekkee quelque temps euh, góor gi yeneen ay ba mag ñi daan ñëw foofu ci kër ga léeg-léeg di toog foofu ci góor googu moo wax ne daan njabar te moom tamit daan njabar foofu fa daan nekk nekkam bi nekkoon foofu suñu kër looyee fa jànge naa ci lu bari ci yàqu waxuma sax ci wàllu yi ñuy def ci shirk ak ci mbonte loolu moom ku nekk xam na ko xam ne njabar euh, muy sixar shirk la bokkaale la day yàq lu bari ci société bi ndax nit ñi fa daan ñëw lañ ñuy wax dama ko daan dégg ndax demoon naa ba jege woon naa ko parce que daan na ma binduloo sax ay xaatim jàngaloon ma ñu koy bindee ma koy bindee daan na dem di defaree ji ay tuur ay xàmb ma gàddu saak bi ñu ànd man ak moom dem dem nañ ci kër yoo xam ne ku ne ma woon kër am na xàmb duma ko mës kër yi tubaabee yoo xamante ni ñu ñu dëkk ci biir ville bi ñoo xam boo leen boo rombee seen kër ku ne la kër yi ay xamb am na fi doo ko gëm dem nañ fa defaraat fa ay xamb rey fa tuur fa ay soow ak ay deret def fa ay guro ak ay nàkk yu kenn xamul loolu yëpp ma gis ko sama mbët jàngee jàngee ci lu bari gis tamit tiit gi nit ñi tiit nit ñi ñàkk bu ñàkk a doyloo yàlla ndax ñëw bi ñu daan ñëw foofu ak yi ñu ko daan wax ma koy dégg xam naa ni seeni xol ragal ñenn ñi ci seen njaboot tiit wala wàllu feebar wala lu leen dal wala koo xam ne lu ko xoos mu ñëw foofu di wax yenn wax yi da ngay xam ne boo def boo jëlul sa xol bi lonk ko ci yàlla ragal ak moo euh, ci tamit yàqute bi nga xam ne njabarkat yi dañ koy def ak caay-caay gu nekk ci ñoom ci jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw di leen seetloo ak di leen ñaanalloo léeg-léeg ñaawteef yu wax nañ koy def ak ñoom ndax seen i nekk la ñu yor boo ñëwee ñu xaw a delloo seen bu nga nekk ci biir ñu seetal yu bari moo fay xew ci ay ñaawteef yoo xam ne man jamono yooyu depuis ba woon xale ci âge boobu laa ko xamoon kon lu bon a bon te ci ci nekk googu góor googu nekkoon suñu kër googu laa ko xamee woon fa lañ waxtaanee woon tamit kenn ci ñoom proposé pour ma jàng oto sam papa jël mooy dem boole ma ak ku mu xamoon koo xam ne mu ngi dëkkoon yëmbal pour ma dem lang ci moom super maanaam jàng oto lu baax la waaye mauvaise idée bi mooy mu di proposé ma ba dem defee ji ko bon super foofu xam ne foofu xam foofu xam ne secteur boobu ak super yi fay daw ak euh, jamono yooyu jeunes yi lang ci oto yooyu noonu ñu seen i jikko mën a yàqoo ma nekk ci super yi di ci lang wax dëgg yàlla liggéey bi jubluwuma woon parce que dama nekkoon nit ku timide nit ku xaw a am kersa tuuti ci yu bari mënuma ko woon te super booy fee lang dafa laaj nga nekk nit boo xam ni xaalewuloo dara voilà donc foog nga woo bët ak yu noonu te man au début xawoon na ma di lang lu xaw a yàgg tuuti commencé gu ma jël euh, porte monnaie bi di di di langal sama bopp jondoo laa woon jondoo mooy kii nekk ak euh, apprenti bi maanaam lay eh, demal woote fële ay eh, demal jëlee client bari léeg-léeg mu ne dugg nga encaisse nga encaisse ñëw jox ko léeg-léeg mu ne la am ñetti client yëpp na demal nga encaisse leen yu mel noonu quoi voilà léeg-léeg day fëgg ne la <laughs> comme par exemple bu ñu rombee seen benn client ci koñ bi muy ñëw bu fëggee avant oto bi taxaw da ngay cëppeelu jëli ko parce que ko defulee xaar booto bi taxaw ngay wàcc beneen super day ñëw jël ko waaw affaire yi moo ci am moo tax nga gis apprenti yi di cëppeelu ci tali yi pour bañ client bi rëcc leen la léegi day ñëw accompagner la ba nga dugg seen oto yooyu la ñuy euh, fa nekk naa ci ba yàgg ma jóge ci kooku demal ci geneen góor boo xam ne mi ngi dëkkoon booru Malika foofu moom bi ma nekkee ci moom quelque temps ma jël ma jël ma jël porte-monnaie porte-monnaie bi tamit bi ma koy jël benn tabaski la woon xaw ma koriteeti te milieu bu doy waar boo ci nekkee yooyu daanaka doo yëg ne sax am na euh, ki ko waroon langal booy géwal lañ ko doon wax mu ngi dëkkoon foofu ci Pikine noonu ñu dem këram xëy suba gi amul apprenti man maa nekk ci oto bi taayo jondoo laa biñ demee seen kër mu ci bopp taxaw joxoñ ma kër gi ne ma kër gi mi ngi ne demal boo demee nga laajte ko bu fa nekkee nga wol ma ko pour kooku ñëw langal ko ci journée bi quoi ma dem bi ma demee ñëw nag bi ma ñëwee ba jub seen kër seen papa mu toog ci buntu kër teg client am ma waaw man léegi su ma ñëwee di laajtee kii naka laay ban tur laay wax parce que man booy géwal laa ko xamee parce que su feer yi dañ yàq sa tur booy géwal booy géwal rek la ñuy wax te tuddul booy géwal am na tur te xam naa ne su ma ko waxee ñëw paa bi naan ko ana booy géwal du ko neex waaw ah, man naa dem rek ma ñëw ci paa bi nuyoo mu ma fay ma ma ne ko ana booy géwal rek góor ji explosé ne ma mooy mooy nangam rek man tuddoo ma ko noonu nangam la ko tuddé ñu ko yox booy géwal góor gi def ko coow loo xam diko diko diko joytu diko ko di ko jooytu di ko nekk naan te séntu woon naa loolu aussi moy nangam rek moy nangam rek waye mu tuddé mako non dal di wax après bon ñama ma nekk fi dafa génn ma dem ma ñay wax ko gor gi comme jaxlé na mu ne moy est ce que mën nga yow gis na la ngay encaissé xam naa ne mën nga encaissé nañ dem man ne ko nañ jàpp ñu dem ñu Dakar ñu yëpp ma encaissé affaire yëpp jaar ci yoon ma commencé di anké yor sama porte monnaie ci la commencé la laa yor sama porte monnaie di di di di yor sama ki nek ci mom nek ci mom ñu liggéey bu jamono neexootuñu parce que xeyna nim bëgg ma koy liggéey man liggéey ma non mom timit dawalam du dawalu super parce que super pour nga mën ko dawal tuti fo nga xaw am tuti rigueur ci li ngay def mom mag la te timit ay sëriñ la daan dawalal particulier la yoron loolu la tam da ndànk lay daw da nga koy fëgg naan ko anawance mais mom day nek di nelaw ci ko tali te xam nga super bu ñu ana anawance mooy da ngay dawal parce que da ngay jiit bon loolu mooy boo jiitlee ak ay super surtout par exemple nga dem fu mel ne HLM eh, Fann super yi daw foofu daawuñu def ndànk ñoom foofu boo fa demoon da ngay fekk ne ñu fay daw ay peekar dëgg lañ voilà buñ la séenee seen kanam xam ne yow mi yéen a bokk fu ngeen jëm dañuy def la tout pour romb la client yi nekk sa kanam ñu jël ko léegi nag ay tactique la yow chauffeur bi ak apprenti bi ngeen di def ba loolu du am même boo wàccee di jël client da nga war a def du gaaw jël ko daal di gaawantu jugaat balaa beneen chauffeur ginnaaw di di la di la bu bu taxawee di jël client nga gaawantu doublé ko dem pour mën a am chance jëlaat yeneen client mais du ko def day nekk di daw ndànk léegi beneen super ñëw romb la nga seen ko muy arrêté di jël client yi di dem foo romb doo fa gis client léegi yow doo yëpp da ngay vide ba pare bu ko defee day wëlbatiku mer na yow la loolu yu mel noonu moo ñu doon jàppale <laughs> moom moom lañ doon jotee xëy na loolu na xaw na ku ko ku deful métier boobu dina xaw a ko mais ay calcul yu garaaw moo am ci super boo ko xamulee mën nga daw bi suba ba ngondo ya yab client da nga ay calcul la lele da ngay dem fenn nga tak fa aju fa taxaw fa di sentu super yi ñëw nag te des fois aussi super yi da ngay xam super bu nek fan la jëm parce que rombu nga len par exemple buntu pikin xam nga ni kii ban la yeb yebul fan boo sene mo ñew du jar ngay jog da ko baye mu jàll nga ne bokku fuñ jëm bo sene nak auto bu ñew nga xam fi nga jëm la jëm nga fa dem taxaw nga taxaw di xaar mooy pour xaar ci yoon bi nga jëm client yi jëni parce que am na benn super bu la njëkkoon génn génn client yi boo toppee ci ginnaawam doo yëpp ngay bàyyi ba client yi génn après nga soog a léegi euh, yu mel noonu après ñu dem ba kii neexootuñu après ma bàyyi ma bàyyi ñëw kër ga toog góor gi commencé loolu metti ko muy ñaxtu fekk bu jamono jooju may wax nii yëpp suñu kër gi nekkoon Pikine noonu ci kaw tali bi jaay na ko jaay bi tamit gis nga góor googu fa nekkoon mu luye ko néegam foofu ñu daan toog di waxtaan fa lépp daan xewe fa lañ koy xelale yenn yi nga xamante da koy def te sax xëy na ñun a lu ñëw parce que boobu ñun ay xale lañ xamuñu woon mu jaay ko mais yàlla baaxee na ko bi ko jaayee xaalis bi jëndaat na ci beneen kër ginnaaw raay kër gu gu baax mu jënd ko def defar ko bi ma ñëwee euh, lang bi euh, nekk noonu ba mu yàgg góor gi ne ma yow yaa ngi nekk nii taxawaalu defatuloo dara léegi ma ne ko léegi naa defaat mécanique mu ne mécanique bi danga may sonal parce que ba dënn bi baaxul da ngay sonn ak yu mel noonu doo fi defaat mécanique man kon baax li ma mujj proposé daal parce que ñun woon famille yenn kër tarixa yi këru diine yi ma wax ban kër la dañ leen jege woon ñoom lool samay mag yi ma noonu ñoom ci àll ba ñu bëri ci ñoom doomu sëñ bu mag bi lañ lañ lañ lañ ñu jox doomam jigéen kon jege woon nañ leen lool sama magu papa tamit bëkk nekk la woon bras droit la woon ci sëriñ bi nga xam ne ko xalif ba ci kër diine yu mag yi nekkoon foofu Sénégal ci tarixa yi euh, sama proposé moom pour yóbbu ma foofu ci kër sëñ ba pour ma dem jàng fa oto léegi nag ma waxtaan ak sama frère bi ma bul dem foofu boo fa demee dañ la fay ne nga nekk fa taalibi ngay doon jàngaloo métier waaw ñu waxtaanee ko sama xel daal jëm jëmul foofu parce que ragaloon naa demee foofu tamit lu baax ci man ma ñëw waxoo ko ma ne ma fi bëgg a nekk di taxawaalu di wëyu du ma ko seetaan léegi noonu noonu noonu ma nekk ba mu yàgg mu ne ma léegi li ma mujjee wax mooy léegi daal xooli jël feneen foo a nekk fi doo fi nekk ma la fi seetaan ngay yàqu ci loxo noonu laa génnee suñu kër sama kër waajur bi may génn foofu <clears throat> tumuranke naa lool parce que xaw ma fu ma jëm bi ma génnee ci mbedd laa fanaan bis te yàlla daf ma def suñu kër gi nga xam ne moom la jaayoon foofu la sama xol jëm am na benn pied bu amoon ci buntu bi ci pied boobu jour boobu fa laa dem tëdd fa fanaan maa ngi toog ak samay xarit ñuy waxtaan parce que foofu laa yaroo ci set ki koñ boobu noonu suñu koñ yooyu foofu ñëppay xamante ñu doon dundee foofu kër boo dugg day mel ne comme seen kër fekk ngay dugg fréquenté nekk ay xale depuis bi nekk ay xale yu ndaw ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp daal donte suñuy jubluwaay ak suñuy jëmuwaay bokkatul moo tax buñ nekkee mag xëy suñu relation dem ba demeetul noonu waaye buñ nekkee xale moom ñoo daan am si lépp ñoo ko doon defandoo ñuy jug di tëdd ñuy jug di tëdd ñuy jug di tëdd guddi googu ku nekk di dem di tëdd ñu ñibbi seen kër ba mu def man xamatuma nu may def ma jug mel na ku jëm suñu kër bañ xam ne ñëpp dem nañ ma dem foofu tëdd fa suba teel ma gaawante jug yow balaa nit ñi di ma gis ci laa dem waxtaan ak sam benn jaay mu ne ma naa dem usine mooy fi ñu wax waagu ñaay Baboullaye 1 usine Bentali ma dem foofu suñ kër famille mooy sama kër famille ñoom yaay kër gu mag la wala këru famille la naa dem foofu toog jël samay bagage dem foofu sama tante moo fa sama mago yaay moom moo fa nekk kër ga moom njabootam bi ma dem expliqué leen situation bi yëpp ni mu demee mi do metti na leen waaye tamit léeg-léeg euh, nga gis ne ngay am waajur boo xam day xaw a te du ngeen comprendre ante xëy na des yàgg bu mu yàggoon ci àll bi éducation xale daf koy xaw a jaaxal da xaw koo a jafe ci moom yenn yi bu ko mënta solutionné rek soo moytuwul wala tuuti eh, da xëy na eh, ci façon bu naqari deret la koy defee ak yooyu rek du ma sax jàpp ne xëy na soxor la wala yooyu yàlla melul woon noonu yàlla na ko yàlla yaram léegi bi nga xamante ne bi dem naa foofu tamit eh, réconciliation amul ci pour ma delluwaat mais fa toog bi ma fa toogee tamit gis naa ni fi ma nekkoon di Pikine ak li ma fa tàmmoon ak li ma fa doon dundee ak fële am na différence nit yi bokkuñu seeni mentalité am na différence comportement yi tamit ute na bon ma nekk fa quelque temps commencé di xalaataat ci mi affaire ay affaire caaxaan ak yooyu commencé di ma commencé dugg xam nga comme Pikine laa jóge commencé woon na fa jël tànk yooyu fii tamit yooyu commencé di ma dikkal bien que nag sama fréquentation demeewuloo bëriwu ma woon ay xarit yu ma daan ànd ak yooyu benn xarit laa woon boo xam ñoo bokkoon kon jënd di dëkk léegi yàlla def ñu dugal ma tailleur métier tailleur bi ma defee métier tailleur bi tamit na ma bu baax parce que yëngu gi nekkoon ci man ma jële ko ci super yi ak ci mécanique bi tailleur bi lu bëri wàññi na ko parce xam nga métier dal la atelier bu ndaw lay doon atelier bu tuuti boo xam espace bi yaatuwul booy wax bi da nga yëkkati sa baat tuuti nga wax nit ñi dégg la mënoo di déplacé lu ba da toog benn place ñu sant la benn liggéey nga toog lu yàgg di ko def yu mel noonu nga xam ne voilà da jàngalaat beneen dal boo xam ne dina dindiwaat lu bëri lu nekkoon ci yow avant léegi ma def métier tailleur boobu def ko ba yàlla def euh, ma commencé di changer bokk na ci changement yi mooy heure julli bu jotee tailleur moom li cëpp dañuy faral di julli euh, heure julli apprenti yi dañuy génn jàpp dem jàkka julli man ma toog du ma julli parce que man non seulement yooyu intéressé wu moon jamono yooyu mais dama bokkoon ci famille bo xam ni ñun daal fi ñu raskanale suñu bopp mooy duñ julli sam papa moom da doon ci foofu la doon askanale boppam aji na màkk te da daan julli da daan woor sama yaay tamit naka dina ko noonu moom bokkul woon sax ci yooyu moom xaw amul lenn ci yooyu yoo xamante ne daan na ko daan na ci askanale bopp mais sama papa moom xam naa ni ci ñooñu parce que jege na ko suñu famille papa jege nañ kër yooyu noonu këru diina yooyu noonu léegi euh, benn bis sam patron ne ma yow xanaa doo julli ma ne ko man noo duma ma man duma julli waaye wax naa ko ko ni tontu ko ko mais au fond de au fond de moi-même wax di travailler na te itam dem bi di julli ji jàkka ji man ma toog te ne jullit la affaire bi gêné na ma dérangé na ma ci laa ne naa commencé di dem di julli ji benn tisbaar ma dem jàkka ji mi ngi foofu noonu ci kaw tali bi noonu rek ñu ngi woon foofu noonu ci boru bi ne laa sanal ma daal di ma dugg fekk jàkka ji bi ma ñëwee kàbbar fekk nag sëlman li ma yàlla na toog mooy dañoo sëlmal ba pare am na benn góor bu newoon foofu boo xam ne mo daan te jàkka ji xam ñoom buñ sëlmalee rek quelques minutes ñu teg man ma ñëw kàbbar di julli xaw ma nu ñuy jullee pour man benn rakaat mooy da ngay def ñaar rakaat comme li may gis nit ñi buñ defee ñaar rakaat toog taaye jugaat pour man loolu mooy benn rakaat léegi ma war a julli tis tisba takusaan ilee ma def quatre rakaat man nit rakka la laa nar a def parce que pour man damay def deux toog su ma jugee jug boobu may jug loolu mooy def naa benn man noonu laa ko noonu laa jàppee woon noonu la ñuy jullee man ne fa saa waay taxaw ci buntu jàkka yor caabi yi nan waaw kii julli ci biir moom ah di man see xaral ma julli genn mu teg buntu bi ma ngay jàmbat rek mu ah man day noonu ma commencé nag xam ne lii du dem xaaral ma commencé laajte quoi ci laa commencé bi intéressé wu ci di laajte sama xarit ba ma doon àndal seen kër am na benn yàlla baaxee ma benn suñ benn mbokk jullit bu fa daan nekk boo xam moom ci yoonu alxuraan sunna daan yëngatu am na tamit ñu dëkkoon suñu côté yooyu noonu ñoo xam ne suñ sama suñu mbokk lañu woon suñu xarit lañu woon jamono yu xamante wuñu woon minante wuñu woon mais dem kër googu di ko fréquenté foofu tamit ñu daan góorgóorlu ci woon alxuraan sunna ñoo am na si ñoom ñoo xam ma commencé di fréquenté ma xamul kii bi kii bi nu mu tuddati saaru alxuraan yi en français laa ko doon saar yi ma njëkk a jàng dama ko bind transcrire ko ni en français di ko di ko mokkal dañ ma koy sàddi ma ko wax ma koy bind noonu laa ko doon jà pour mën a am lu ma jullee di fréquenté milieu yooyu di laajte laajte julli laajte yu bari may posé ay question daanaka sama kay laa yoroon boo xam ne lu ma xamul dama ko ciy bind dama curieux woon nag dès le début laajte rek damay laajte rek léeg-léeg dama lay laaj bu fekkee yow da ngay góorgóorlu ci sunna nit sa njàng soriwul da am problème Euh, ma ne léegi dinaa wut kaamil temps yooyu kaamil traduit yu marron yi la mi ngi soog a commencé ñëw Sénégal réewul woon sax euh, am na benn euh, ndeysaan mercerie bu ma daan dem fa laa daan jëndee suñu fourniture yi suñu moomu saan yoon marché marché ngelaw laa daan dem di fa jënd ay a amoon naa ko ay clients yoo xam ne des fois boo ñu jox la vingt cinq wala jox la cinquante franc sa affaire baax parce que jamono yooyu waaye jamono yu d'accord la woon boo amee sa ñaari cinquante franc gauche droite bu libaru mburu ak mayonnaise defal la ci doo dara am jamono yooyu rek yow pour yow loolu boo ko amee moom tout est beau léegi bu nga xamante ni noonu la demee après ma dem ci am na ci fu ma daan man ma ne ko mu teg ma ne bi xanaa doo ma ko jox man mu bëgg kaamil ma ne ko soxla kaamil kay traduit mu ma waa baax na ndaxte moom dafa am benn feeram bu jaay téere ci la fa la ma bëgg utalee téere pour may ma ay saalum saalum lañ la waañu kii woon ci diine la dëgg yàlla bi ma gisee may commencé di góorgóorlu ci diine daf ma estimé woon yàlla na ko yàlla fay ma daal di dem benn jour rek ñëw di jënd si ay fruits yi mu ne ma yaa ngi ma ne waaw mu génn kaamel jox ma ko jour boobu dafa mel ne ay millions yu millions lañ ma may kontante boobu ma kontante woon ak yëg yëg boobu ma amoon loolu fàttalikootuma ci sama àdduna wala boog jafe na ma am lu mel noonu sentiment boobu ma amoon jour boobu kaamil boobu laa njëkk am sama àdduna mu nekk kaamil boo xamante ni dafa meloon ne àdduna ak ci ma jox jour boobu daanaka bi may <laughs> dellu dem atelier yoon bi daanaka dama koo xaw a daw ndax kontaan bi ma ñëwee indi bi sama nekk kaamil boobu ci daan sëgg di ci jàng mënaguma woon liir feraguma woon iji fer ji bu dëgër waaye maa ngi doon taqale taqale bi tamit sama njàng tamit arab nu mu commencé mooy sam benn cousin boo xam ne ñu dëkkoon parce que comme nu ma ko waxee benn tali foofu suñu kër famille la sama cousin boo xam ne ñu dëkkoon moom xëy na ci yeneen yi beneen yoon la nekkoon mais jàngoon na arab parce que moom jàngul français arabu koñ yooyu noonu lañ ko dugaloon mais comme jàng na ci lu yàgg ci amoon na mënoon na liir amoon na niveau liir bu bu dëgër benn jour <laughs> toog naa nii mu ne ma waaye ma ne ko man arab vraiment bëggoon naa am kii pour lire mu ne ma waaye boo man mën naa la affaire yi de ma ne ko ah xam nga rek kii booy Dakar yooyu la quoi. yal na yàlla yaram ko moom tamit gaañu na ma ne ko amul problème léegi da nga may bindal euh, lettres yi affaire yi ma mën ko kii ma wax dëgg yàlla tamit bindal ma lettres alphabet bi yëpp bindal ma ko ni alphabet bi bindal ma tamit quelques mots nu ñu koy taxalee ak yooyu wan ma ko ci kayit la ma ko bindaloon ay kayit la ma ko laajaloon ne rek jox ko mu ci loolu ci laa nekk ay fan laa ci def commencé fere di lire daf ma ko wan ne rek dem bàyyi ma ay fan laa ci def commencé di lire may lire sama lire commencé di dëgër ma am kaamil boobu di ci jàng di ci jàng tamit am na benn livre daan bind Égypte daan jàngale ci seen rajo bi mu tuddoon l'arabe par la rajo boo leen bindoon par correspondance dañ la koy may c'était pour tamit jàng arabe mais en français ma bindoon leen ñu yónnee ma seen livre yooyu tamit yaakaar naa trois la woon ñu ndaw ma kontaanoon ci trop benn jour laa xëy rek poste ñu indil ma mu mel ne waaw lu rëy ma jox ma jël livre yooyu tamit ci jàng sama livre sama lecture gën dëgër ut tamit ay téere a tilaawa ay yu mel noonu ma jël ko tamit nekk ci yooyu laa ci newoon di xale di jàng jafe woon na daal jamono ji ma gis ku ma jàngal njàng mu dëgër ma nekk ci tailleur bi nekk ci tailleur bi ba jamono ma xam ne mënatuma continuer ci ay ñaw jigéen lañ daan ñaw lu ci ëpp daan nañ ñawal ay góor mooy ñaw tailleur yi ñaw ñaw tubaab yi bon dañuy ñëw di ma bëgg a jox loxo te man bàyyi woon naa di jox li jigéen loxo lool daf ma daan gêné léeg-léeg sax daan sëgg-sëgg lu ma daaneel dara comme ma daaneel si wala ma daaneel saaj bi nekk di ko waru ci suuf bu bañ a joxe loxo ak lu mel noonu bon des fois sama comprendre na ma bu gisee jigéen mu ñëw di ma bëgg a jox loxo dina la xaw a kii noonu di siyaadee la tuuti mais am nay xale yu jigéen ñi dëkkoon ci kon bi foofu dañ ma sonaloon dañ daan ñëw at lee di ma provoquer di def ay mbir ak yu mel noonu wala yow doo jox jigéen la ma dem daal ba xam ne fii xëy na dootul sama sama milieu ndax li may dund maa ngi fii am ay jeune ak yow ma mujj bàyyi bi ma bàyyee tamit li nekkoon sama objectif mooy dem jàng ji alxuraan ci la proposé woon benn sëriñu daara boo xam ne daara ju mag di nekk euh, ci àll bi di nekkul Dakar ma woo ko téléphone mu jox ma rendez vous këram fu muy ñëw fii nii Dakar ci semaine bi bi mu ñëwee ma dem këram ñu toog waxtaan ma proposé woon ko boobu man voilà ma ne ko léegi man lu may proposé aw ma lu ma fayee mënu ma fay aw ma ku ma fayal pour ma mokkal alxuraan li ma bëgg mooy ñëw ci daara ja di liggéey di jàpp ci liggéey bi di jàngale di mokkalaale mu ne ma loolu moom pare na pour jàppale ma ci defal ma ko mais mënaguma jël définitivement li may proposé mooy ma dem def benn genre stage trois mois su fekkente ni gars yi jàngale gis nañ ni sama nekkin foofu baax na ak yooyu après ñu ñu ñu ñu téye ma ak yu mel loolu moo ci xaw moo ci xawoon ñuul moo tax sama mbir moom mujjul ant ndax dama doon ragal tamit quitté Dakar ba tàggoo ne dem naa te la li ma yóbbu woon du du sotti may dem def trois mois di ñëwaat dama bëggoon dem su demee mu nekk une fois pour toutes ma toog foofu jàngal xuraan soog a ci laa xaw a sikki sàkk dengi dengi mujj ma dem ma continuer nekk fii Dakar di jàng bi ma nekkee Dakar tamit wax dëgg yàlla benn tali fi ñu nekkoon rëboon na lool ñun bëri woon nañ foofu nekkoon ay ndaw daan góorgóorlu ci yoonu sunna suñu xam-xam soriwul woon xëroon nañ lool tamit wax dëgg yàlla yàlla taxawoon nañ woon ci loolu bëggoon nañ tamit lu baax donte xam-xam bi soriwul lu bëri manqué woon nañ tamit ci wàllu expérience àdduna ak naka lañ war a laxante ak yooyu daan nañ def ay erreur yoo xam bi ma demee ba jamono xam naa ni wax dëgg yàlla am na ci loo xam ay erreur la woon waaye man jàng yoonu jàng laa mosoon jël depuis ma commencé di di di góorgóorlu ci sunna bi li ma mës a gëm mooy dama war a jàng am na ay nit yu fi nekkoon jamono yooyu di def ay conférence ñu leen di coow naan dafa mën a dajji mais man seeni waxtaan mosuma fa dem daa ma fa nangoo dem parce que ma daan wax ne ñi li ñuy wax du xam-xam dañuy toog di critique société bi di wax ni rek di wax ay fait de société mais liñ lay wax du la former ci dara daal parce que liñ lay wax yow rek xamal nga ko sa bopp voilà toog di dénoncer société bi lu baax la mais proposer ay solution wax nit ki lu ci lu muy jaar loolu loolu lu am solo la lu ma gisoon mooy yoonu jàng euh, loolu jafe woon na ma nag ma jamono yu ma gis ku ma jàngal parce que boobu ñu bëri si jàng ji woon ñëwaguñu woon euh, ki fi nekkoon te sax xëy na ci lay obligé tudd ay tur mooy Oustaz Assane Ka yàlla yàlla sàmm ko wax dëgg yàlla nit ko am ay qualité la jàppale nañu bu baax parce que dafa nekk nit ko xam dafa jege jeunes te loolu dafa xaw a jafe tuuti ci doaat yi ndax bu ñu amee benn âge bi wàccaat ba jafe jege jeunes yi bañ jege la benn jege bi ñeme la di la son bi mën a jeexitalu ci yow dafay jafe te moom am am na genre que qualité yu mel noonu te itam nit la ko xam boo jaxasoog moom tuuti da ngay jeexitalu ci moom mais il est mal compris ñu bëri comprendre ñu ko moo tax seulement dañ koy gêner parce que comprendre ko mais dañuy gêné wu ci moom tamit parce que loolu moo ko waral mais nit la ko xam boo ko comprendre nit ku am ay qualité la nit ku nit ku ñu mën a jeex telu ku ñu mën a jariñu ci moom la mais jamono yooyu daan na ñëw foofu noonu ci buri géba bi am fu ñu fa daan defee tafsir noonu ñu fa daan dem mais lu bëri daaw fu nekk ndax dafa daan génn xuruj lu bëri daaw fu nekk presque doo gis keneen koo xam ne nga mën a jàng ci moom te man jamono yu jàng moo nekkoon sama jubluwaay am na benn bibliothèque bu tijji woon jamono yi di soog a tijji ay mbokk tijji woon ko muy jamiyatu shabiba jamiyatu shabiba mooy ñi moom daaru sunna yàlla na yàlla fay leen liñ njëkk tijji ci lu ma xam ci activité yu mel noonu mooy seen bibliothèque boobu di abale ay livre ak ay cassette biñ fay soog a dem amaguma woon sax carte sama carte d'identité laa fa bàyyi woon pour mën a àbb ay livre ak ay téere da ngay daan ñëw inscrire am nekk membre ñun ñu mën naa wax ne ñooy membre yi fu njëkk am ay carte di jël ay livre daawuñ fa jóg chaque semaine dañ daan def àndandoo mbaboor dem buñ demee man ay livre xam-xam ak ay kasatu xam-xam rek laa daan jël ci laa commencé di jël ay livre cheikh euh, Salih cheikh Mouhamad ibn Salih al Usaymin rahimahullah dama daan déglu ay kasatam lu bari ci li wax du ma ko xam parce que sama niveau arabe dëgëragul woon yenn baat yi su ma ko déggee ma ko dama koy bind su ma gisee kuy jàng arab ma laaj ko boobu amaguma dictionnaire mujj gi am benn dictionnaire Munjid yaakaar naa Munjid la tudd dictionnaire boobu dictionnaire boobu daanaka xawoon ko mokkal ndax fu toll lu ma jaaxal ma tijji ko di xool ci baat pour mën a xam lan lay tekki ak yooyu foofu laa di jël ay kaset ak ay livre livre yi sax daan jël livre yoo xam ne dépassé na sama niveau mais dama koy jël su ma ñëwee sama nekk di noonu laa daan def di déglu ay charx al aqidat al wasatiya charx charx al qawaid al musla charx riyadu salihin yi mel noonu laa daan faral di jël ay silsila lay doon yu gudd dama ko daan jël di ko déglu ba mu jeex na dama koy taal jaaxan sama lal di xam li muy wax lépp ndax persévérance bi ma ci amoon te yàlla baaxe woon na ma tim teeloon naa commencé di jàngale parce que jamono yooyu jeunes yu bëri buñ commencé di góorgóorlu ci sunna ci secteur boobu man sama néeg lañ doon ñëw ma leen doon feral ijji jox leen tuuti ay base ci arab jàngal leen ñu mën a liir ak yu mel noonu bari na ci ñu bari dañ ma daan sama nekk dañ daan ñëw fu daan fees del daay ñëw topp loolu tamit jëriñ na ma bu baax mooy teel a jàngale boobu donte du jàngale xam-xam bu tax ñuy wax mais le fekk ngay tàqalante ak ñoom ci jàngale nu ñuy liiree ak yu mel noonu loolu tamit da lay gën a ci li nga jàngoon ak ginnaaw bi may commencé di jël ay cassette cheikh nasiruddin albani di ko mu leeral sa bopp ci yu bari ci wàllu manhaj li nga war a jël ci sa eh, dund ci wàllu sunna yoon alxuraan sunna ak yoon boobu nu mu uteeg yeneen yoon yu bari ak yu mel noonu loolu tamit lu lu teel a leer suñu bopp la wax dëgg yàlla sikkoon nañ bépp sikk foofu ñu dëkkoon ci bentali nañ coow mais teeloon nañ xam manhaju salaf ci ñu ko njëkk a teel a xam fii ci Dakar bokk nañ ci comprendre woon ko mu indi woon sax ay problème suñu digganteeg ñu bari ndax leg la problème yu bari loolu moom moo ko doon waral mooy ñàkk bu ñàkkoon a accepté yeneen yoon yu bari bëgg a tënku ci manhaju salaf loolu indiloon nañ ay jafe-jafe euh, ñàkk am expérience boobu ak ñàkk xam boobu tamit bon comme dañ daan faral di toog lu bari di daje ñoo daan toog am na ay bërëb yoo fa dañ daan toog lu mel ne boutique ba yoroon nañ benn boutique sam benn xarit moo ko moomoon boutique bi di bëgg a dem fayit mu jox ma ko recruté ma ma jël ko nekk boutique ba yoroon naa ko loolu tamit ci parcours bi la mooy jaay naa boutique ma géré boutique ba fa la gaa yi daan daje moo doon markaz bi bu ñëwee masala masala coow li ne kur di wax rek bu ñëwee teg ataaya ji lu gaa yi wax nga dugg ci ñu nafa di coow fa la ñuy bu guddee aussi ñu dem ak toog ci kaw étage bi ci kaw fa daan nekk gaa yi fa ba yenn heure yi ñu indil ñu bol dof xam nañ ko gaa yi dóor ci naan ataaya toog ba ay guddi nga tas gaa yi tasaaroo dem tëddi boo yeewoo fajar euh, julli tëddaat tuuti ba mu naaj nga jóg ñëw tijji boutique ba gaa yi ne fa encore li jënti ndékki ak yu mel noonu ci lu mel noonu daal lañ daan roulé di ci dox mais nag amoon xaritoo gu dëgër gu nekkoon fu mu diggante tamit yàlla xam na ko léegi ci exemple yi ma ci mën a joxe jàkk yi ñu doon julli dañ fa doon am ay jafe-jafe ak mag ñi nga xam ne ñoo fa daan nekk ndax ñàkk comprendre ante te bu ñu defee yenn yi ñu mer gis suñ bopp bëgg ko faje noo xam ni ginnaaw bi man moo tax ci li tax may nettali lii nii loolu bokk na ci mooy da ngay dem ba léegi yow nga gis ay nit di ko def nga bëgg leen wax ne li ngeen di def ni du ñu njumte la mais duñ la comprendre fekk yow li ñuy def ni jaar nga mooy ne booy fréquenté jàkka yi di fa fekk ay mag ñoo ni ñoo la mag ñu say moroomu bàyyi lañ li ngay wax comprendre uñu ko li ngay dund comprendre uñu ko dafa am nooñu naxante ak ay mag lañ foog nga sàmmonte seen i âge mënoo leen a forcer mënoo leen def yenn yi dañ daan gedd ay jàkk am na ci jàkk ñoom nañ fa daan dem commencé def am ay jafe-jafe sama gars yi nu ñuy def tey teylu ba imaam bi julli ba pare ñu ñëw beraat seen mbooloo ci ginnaaw benn jour am na suñ suñu gars yi kenn ku fa ñëw jiitewaat fa ak mbooloo moo xam daanaka moo ëpp mbooloo bi imaam bi doon jiite gars yi mag ñi fa nekk ñenn ñi ci ñoom biñ ko muñee muñ ko muñ dañ di jaaduwul nangam commencé di wax ci jàkka ji affaire di ko waral mooy sama gars yi ci am ñoom dañ leen di tontu te waruñ leen woon tontu xëy na tey jëf ba ci boppam tamit wax dëgg yàlla tegul woon ci yoon mais ñun jamono yooyu mënuñu woon xam loolu ndax timis la woon ñu julli ba pare mu ñëw taxaw ci diggu jàkka ji benn saafe bu rëy nekk ci ginnaaw mu kàbbar di julli gars yi di parce que li ñu wax mooy góor gi dafay xaw ma takk téere la ñu waxoon am na daal lu ñu gëstu woon ba ni da koy ay xaatam ak yooyu lépp ñoo ko dem di jënti gëstu ko te des fois ci am lu ñu leer mais ci yu mel noonu lañ ko tegoon bi coow li bëree ci jàkka jooju ñu bàyyi jàkka jooju dem beneen jàkka bu nekk suñu ginnaaw ko ndax jàkka yi seqoon nañu di fréquenté foofu jàkka jooju tamit suñuy xarit yoo xam ne woon seen kër góor yi mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jàkka ji seen wëllëre waajur la woon lañu woon seen waajur dafa gaañu mais daal xamoon nañ leen bu baax ñoom ñi jullee ci jàkka ñun tam ñu fay leen di fa jullee jàkka ji tamit amoon nañ fa ay ay jafe-jafe ak ay problème bokk na ci li ko gën a déclenché benn bis gars yi dañu ñëw ñu toog fi ñu daan waxtaanee gars yi ne bon pas diw romb nañ ko gis ko muy parier ci PMU quoi di wax ne jëlal tel fas jëlal del fa te moom day jiite ci jàkka ji gars ne léegi nañ ko embargo comme day carte pieux yi kuy carte kenn du julli ci ginnaawam saway day ñëw taxaw ci jàkka ji bu góor gi jógee ci sàpp yi di dem di jiite gars yi rocceeku affaire bi metti ko metti boo xam ne foo ko takk weesu na ko dem na ba ciy jooy ci loolu di ci wax wax bay jooy ne moom kàttul dafa waxoon rek noonu nit ñi waxe mu dugal ci làmmiñam moom du kàtt dem nañ ci ay affaire yu mel noonu jàppante yi ci jàkka ji léeg-léeg ay parce que dañ doon ñëw di def yoo xam ne ci jàkka ji des fois bàyyi duñ ko comprendre buñ la laajee nga exploser seen kaw lu mel ne masalan euh, iqaa mooy ngëb bi nga ngëb say loxo teg ko booy booy julli nga jëfandu ci biñ ko déggee ci kasetu Cheikh Nasir Dine Albani ñu commencé di ko def léeg-léeg yenn bàyyi tamit euh, da ngay julli seen wet boo ko defee ñu lay ci reetaan wala ñu def yenn yow tamit au lieu que nga mëñ rek noppi doo wax dara mais da fay nekk di di ko tontu te loolu yëpp tamit xelu xale moo ñu jàppoon wala nga julli nit jaar sa kanam nga ngay ba ma xanteeg moom parce que xadis bi ci ñëw ak yu mel noonu yooyu yëpp ay jàppante la leen di ci jàkka jàkk ay tension benn bis ñu julli ba pare rek bilal bi ne yéen diw yow diw yàgg sa xarit yooyu ngay àndal soxla nañ leen buñ jullee ba pare bëggoon nañ waxtaan ak yéen allahul mustaan léegi bi bi pro bi convocation boobu amee gars yi ñëw toog ñu dem daje kër ga kër sama xarit yooyu ñu toog fa lañ daan toog nag lu bëri nag nekk wax dëgg yàlla même guddi sax fa lañ daan nekk toog waxtaan ak yooyu bon fa lañ toog amoon na benn pël jàllo pël fute yooyu bu amoon boutique ci kër gi noonu foofu léegi mu day defar mayonnaise mayonnaise bi comme jaune bi lay jël blanc bi blanc def bi ndox mu weex bi daf ñu ko doon defal ci benn benn kii noonu di ko ñu ko dugal ci frigo bi bu demee ba bari nag gars benn guddi lañ fay daje saaf ko def ko def ko omelette jënd suñu mburu nag fa lañ doon topp gars yi ci <laughs> am na suñu benn xarit <laughs> affaire yi day day day cëkk quoi du du du bëri noonu mais bon buñ koy lekk boo lekkee tuuti affaire yi jamono la mbokk kii dañ ko sonal rek kii mbokk kii dafay yàqu rek da ngay rey ba ndax loo xam ni boo ko xoolee sax mu jeex maanaam dafay yàqu rek kii leen ah dafay yàqu booy jóg mu naan la yàq rek ma ne ko fi lu fi yàq ne ko fi léegi fa lañ dem na toog fa waxtaan gaay yi ne léegi nañ toog ñu def ñu suñu stratégie léegi ñun ne diw yow yaay amir bi yaay jox ku ñu bëgg wax si ñun yaa koy jox parole ak yu mel noonu ñu ne léegi nañ dem ñu dem ñëw toog voilà léegi gars yi jël parole nañu léegi yéen daal ci jàkka ñu ngeen di jullee waaye nag dañ gis ne léeg-léeg ay kii daf fi am coow day am affaire yooyu ñun suñuy doom lañ leen jàppee buñ sañoon wax dëgg yàlla dañuy nekk ci ci jàmm affaire yooyu parce que ñun ñu ngi bàyyi suñu doom ci kër ga duñ fi ñëw di julli yéen da ngeen di ñëw ci jàkka ji di julli wax ay wax yu wax dëgg yàlla daal jamono jooju réconciliation mënoon naam bu fekkonte ne jaare nañ ko ci yoon mais manque d' expérience bi may wax mi ngi feeñ ci kenn si ñun bi mu jëlee parole dafa commencé ne yéen problème bi mooy jàkka ji li ngeen fiy def commencé di joxar bi bàyyi fa toogoon kenn par kenn yow diw fii la fi nit jug ñu def bayaan nga ko doo fi waxe waaw te yàlla lan la wax man azlamu mimman mana'a masajida llahi an yuzkara fiha ismuhu kan moo dàq tooñ kuy tere ñu wax kàddu yàlla ci jàkka yàlla di leen joxe bi kenn par kenn gis nga ba mu jeexalee jàkka ja day bëgg a ndax gaa fa toogoon mag ñi fa toogoon ku ne naan maay wax maay tontu imaam bi naan bàyyi leen ma wax man lañ jëm man lañ jëm ku wax allahul mustaan jour boobu bon wax ji waxaat xaw na dëgër foofu ba daanaka jotaay ba xaw a kii xajam après ñu continué waat ba léegi dafa jullee waaye tamit bon chaque fois dañoon amaat ay uute beneen uute fi li koy indi woon mooy jàkka yi dafa am benn euh, benn benn euh, montre montre boo xam ne ci kii bi kanam noonu lañ ko def mais montre am benn genre alifas bu nekk ci kaw gars yi ne lii xërëm la waruñ ko bàyyi ci jàkka ji buñ fiy julli suñ julli baaxul léegi buñ jullee ci foofu wala nañ xool nuñ ko def pour dindi ko léegi ñu ne comme ñun ñooy faral di di bale jàkka ji par dimanche nañ ko jéem a dindi te loolu ndakate buñ ko waxoon sax bàyyi nekk ci jàkka ji ñoom pare woon nañ pour dindi ko mais xamuñ ko xamuñ ko woon mu indiwaat beneen coow encore beneen mbir bi ci nekkaat mooy bi gars yi rénové jàkka ji defaraat ko ba pare di organiser benn bëccëg boo xam bëccëgu cant la <laughs> loolu tamit indi woon na coow lu rëy parce que gars yi dañ ko boycotté demuñu woon te dañ doon jàpp ci construction yi magi jàkka ji bëggoon nañ wax dëgg yàlla gis ñu fa mais gars yi ne duñ dem dégg nga affaire bi indi coow ah di ngeen def na ngeen ko mën a defee ñuy def ñuy def suñu suñu sant di di tabax suñu jàkk ba pare di sant yàlla ngeen bañ fa ñëw affaire bi indiwaat coow ak yu mel noonu mujj gi ci lañ xaw a bàyyi jàkk yooyu di dem fële mas jàkk ji ñuy wax masjidul aqsa tur bi jamono yooyu la mbokk yi jël la ko gaa yi jël ndax mi ngi nekkoon foofu diggante ñaari ñaari tali yi ci booru cinéma al akbar foofu jàkka ji foofu la nekkoon yàlla def am ay mbokk yu dëkk ci côté yooyu noonu dafa jullee mooy ci jàkka yu ndaw yooyu nga xam ne yaakaar naa maire bi moo ko fa def am na génn góoru saraxule gu dëkk ci koñ bi foofu moom ci responsable yu jàkka ji fa nekkoon nga ñoo ko sanc fa la bokk mais am na yeneen góor yu fa daan jullee si yoo xam tamit ci yeneen yoon lañ nekk ci ay tarixa lañ nekk ak yooyu ñooñu demoon nañ ba am ñoom beneen jàkka joom fa lañ daan dem bàyyi jàkka jooju loolu tamit ubbiloon ñu yoon bi ba tax ñun ñu fa daan fréquenté jàkka ji nag dem ba ñu commencé nag di ko récupéré am na benn mbokk bu yor fa benn atelier tailleur moom tamit da daan jàpp ci jàkka ji bu baax fa la daan julli see ci ñi fa daan njëkk a nekk la bokk ñu koy jiital muy jiite foofu ñuy ñëw di julli see foofu bi ñu góor yooyu gisee ñuy commencé di xam ne ñi ngi envahir jàkka ji ñu koo récupéré wàcc ñun une affaire bi tamit di fa coow di fa ñëw léeg-léeg dañuy ñëw rek daal di xàll ci mbooloo mi dugg jiite pour wan nañu jàkka ji suñu jàkka la affaire bi commencé di indi coow góor saraxule boobu gën naa xam ci moom dara xaw ma ba xam ni ngi dund ba léegi mais yàlla ndax ñoom dañuy jege sunna mooñ daan may fit ñu wan ne moom turam mi ngi ci imaam yi ci jàkka ji ndax imaam bi nekkoon dafa gaañu moom moo toppoon ci moom kon ñu bëgg a indil ay ci yoon tamit euh, li ñuy def teguñu ko fenn benn bis convoqué ñu fa sax benn euh, wax euh, mu indi fa tamit ay coow ak yooyu parce que dañoo yëpp ñëw toog ci jàkka ji wax wax après bi mu paree keneen ci mbokk yi jël parole tontu ko wax ji xaw a ñagas ñu wax noonu après ñoom daal mujj gi dem nañ ba bàyyi ñoom jàkka ji ñu des moom noonu la jàkk ji ne mees defee suñu loxo waaye tamit ba léegi déggu amu ci ndax am na ko fa daan def waxtaan koo xam ne ñëpp ànduñu woon ci moom daawuñ ko déglu parce que daan ñoo def waxtaan waaye waxtaan bi xam-xamewul woon kooku sax léegi ku siiw la mi ngi waxtaan ci rajo yi jamono yooyu commencé gul nekk ci rajo yi di wax daanaka nit ñi xamuñ ko woon waaye méthode waxtaanam ak li daan jàngale daal dégguñ ci gisuñ ci woon suñu bopp ci njàngaleem sunna mu wér mu ci nekkoon te loolu tamit gën naa feeñ léegi ndax jamono jooju ñun daawuñ ko déglu dañ daan génn dem buñ jullee ba pare ñenn ñi daan ko naqaru di ko métitlu waaye ñooñu den ko naqaru di ko métitlu tey koo ci laaj ndax yaa ngi koy déglu tey dina la déglootuma wala déglu moo loolu tamit xawoon dafa indi ay jafe-jafe ci kooku daan fa def waxtaan yooyu semaine bu jot ak tamit yenn yi ñu fa daan def ci jàkka ji yoo xam ne bi ñu demee ba def suñu loxo daan na indi ay problème te loolu yëpp tamit li ma ngi wax rek mi ngi delluwaat ci li ma waxoon sànq ndax dañ daan ñëw ne léegi comme jàkk ñoo comme jàkk sunna la yenn gars yi dañ daan ñëw dugg ak seen i dàll ne dañuy julleeg seen dàll parce que jullee jullee dàll sunna la am ñu ne noonoo li bu leen ko fi def affaire bi indi coow lu rëy ci jullee dàll ci jàkka jox nañ ko lal ay moquette defar ko mu ñëpp di julli ñëw nga dugg ak say dàll ne da julli parce que sunna la parce que jamono yooyu ñu ngi yoroon sifatu salaatu nabi bi Cheikh Sidaan ba ñu yooyu te xam nañ ne téere boobu du téere boo xam ci ngay jàngee fiq noonu téere xadis base fiq yi nekkul ci ñun mais ñun téere yu mel noonu lañ doon a jàng fiq moo tax boo gisee tey ay jeunes di defaat erreur da leen di wax ne leen dem leen jàng ji yi jàng masail ba mu seen bopp boo ñëwee ci téere yi ko comprendre waaw téere bii fi nekk ay adilla da nga koy jàngee da nga ciy comprendre ay problème rek la indi mais léeg la lañ doon def luñ fa gis dem ne dañ koy pratiquer luñ fa gis dem na dañ koy pratiquer pour wanaat la loolu suñu nuñ doon euh, déggee noon nu mu nu mu dangereux am na benn mbokk <laughs> bu daan ñëw di ñu laaj ci affaire soxnaam parce que daf doon amay problème da doon def yenn yi gars yi ko da koy fase waaw léegi ñu commencé kenn dem jël benn téere mu liir ci benn ku tey bu ndaw xadis bi wax ne ñett ngi ni ñoo xam ne seen seen seen seen julli du weesu seen nopp xaw ma nu mu ko ci waxee ci xadis bi i koo xam dafa jiite ay nit te bëgguñu ko ak koo xam dafa yor jigéen boo xamante ne ay jikkoom baaxul te bàyyiwu ko mu ñu jël xadis bi commencé di ko tegtaloo di wane ne dafa war a fas soxna xoolal loolu pour wan la manque d' expérience nit ko am soxnaam nekk ak moom depuis jamono am ay problème doo ko jéem a conseillé xelal ko ak yooyu mais ñu commencé jël xadis bi sukkandiku ne dafa da ko war a bàyyi bu ko bàyyiwul xadis bi lii la wax façon déggin bu catégorique boobu noonu lañ doon déggee affaire yi voilà léegi biñ nekkee noonu tamit sama kër gi ma dëkk suñu kër gi ñu dëkkoon commencé woon naa am ak problème ak sama yenn cousin du ñëpp sax am na ci ko xam na ma sonal tuuti parce que li ma doon dund neexu ko di ma gaaruwaale di ma def yenn ma provoqué man tamit yàlla baaxee woon na ma musuma ko fekk si si loolu wax dëgg yàlla amoon naa retenu ci côté boobu yàlla baaxee ma tamit euh, jamono yooyu tamit ay tentation bëri woon na surtout ci wàllu jigéen ay provocation yo danga ko doon gis xam nga secteur yooyu daf xaw doy waar mais yooyu tamit ci bëri yàlla moo lay sàmm yàlla moo lay baaxe am na ci yoo xam damay dem ba tey dama koy fàttaliku damay sax tiit ndax jàll bu ma ci jàll ba tàbbiwu ma ci yenn piège yi damay xam ne yàlla rek yàlla bëggee jaarale àggale fenn fi ci comme mu bëgg la teg ci yoonu xam-xam wala yooyu moom mën na la sàmmal boppam ci façon boo xam ne sax des fois yow jamono ba loolu di am doo xam da ngay dem ba paase ko dépassé ko soo ko gëstu ne eh lii ndakate nii la woon soo ko comprendre ndax foofu secteur boobu xawoon na doy waar te nekk jeune xaw a timit wala teel a am jëmm ak yu mel noonu mën na la timit exposé ci yenn fitna yi mais yàlla defaloon nañu sutura bi nga xamante nekk naa foofu ci kër ga tamit dem na ba jamono ma xaw a yëg sam bopp ci ne provocation yi ëpp na ma bàyyi dund bi foofu bàyyi yu bari ci kër ga defatuma ko parce que dama ne woon xëy na bu yabeer amee yenn yi moo ko waral daal ma arrêté sama xarit tamit boo xamante ne wax dëgg yàlla yal yàlla fay ko jamono yooyu moo ñu tane woon ci wàllu ay am-am nekk nit ku yëwan nit ku baax yàlla na yàlla fay ko xëy na moom xam na man du ma tudd turam moom doon jàppale bu baax a baax parce que moo toog togg këram bu toggee de soxnaam togg mu tibb bool indi indil ma sama nekk ñu ñëw lekk man ak xarit bi nga xam ñoo doon ànd bu ñëwee foofu bu ñu ñëw ñu dóor ci rek guddi ñu dem néegam bu ñëwee ñu reer dama daan ñëw foofu sax di Eh, ak yu mel noonu mais alhamdulilah daal après noonu jamono yooyu nañ ba benn moment ñu ne dañuy hijra dañuy gàddaay ci lañ waxoon nañu dem Kaarang bon Kaarang bi tamit Assane idée ci moom la jóge woon Assane ka yal na yàlla sàmm ko baax a baax yàlla defal ko tawfiq ndax jafe ay xat-xat yu parce que moom tamit jaar na ci ay jaar-jaar yu méttee métti dundam lu lu bëri nit mën na ci jànge nit ku muñ la nit ku enduré ay mbir yu bëri la wallahi lazim te mënoon na jaar fu bëri yooyu mën na mën na ko ci bañ a fekk mais bañ bu mu bañ lu bëri tënku ci ay principe ci li ko a bokk na ci te tënku boobu mu tënku ci ay principe am ñu bëri comprendre lañ ko ci mais man gis naa ni waruñ ko woon koo xam ne ñiy yëngatu ci daaw sama kàddu waroon nañ ñu koy bàyyi xel tuuti di ko boole tuuti ci yëf donte nit parce que tamit boo gisee Moussa bi mu demee ci xudar bi ànd ak moom xudar dafa naqari woon deret ci li mu doon ànd moom naqari deret bi mooy gis nga condition yi mu ko poseel mais Moussa pour mën a jariñu ci moom dafa obligé li muy nekk-nekk yonant di nekk-nekk nit ku tedd ku baax koo xam ne moo gën xudar moo ko ëpp maqaama waaye loolu yëpp terewul Moussa dafa wàcce boppam ànd ak xudar ci ay ay ay condition pour mën a jariñu ci xam-xamam hal attabiuka ala ala an tuallimani mimma ullimta قال إنك لن تستطيع معي صبرا waye gis nga loolu bu fekkee amuloo ko ci genre nit ku mel noonu ku mel noonu wax dëgg yàlla pour nga mën a def ak moom dana jafe tuuti parce que boo bëggee yemale ko ak ñëpp dafay mel ni ma ko bëggee wala duñ mën a nekk loolu boo ko defee tamit da nga koy voilà te man gis naa ne waroon nañ ko gën a mën a jëriñoo waat milieu scolaire bi amoon am na amoon na ci influence bu baax jeunes yu bëri jeexitalu nañ ci moom ku xam Dakar xam ne asan am na fa amoon na trop jeexital ci jeunes yi parce que mën na wax ak ñoom mën na jëflante ak ñoom ci façon boo xam ne lu bëri ci doaat yi mënuñu ko yàlla rek moo tax may wax parce que ku nekk ak yàlla ma la maye am na ñoo xam ne côté bii lañ gën a mën am ñoo xam ne côté bii lañ gën ñëpp yamuñu ñëpp tolloowuñu ay qualité nit ku nekk ak say qualité léegi bi nga xamante ne dem na euh, Karang ànd ak soxnaam dem foofu ñun dañ ne léegi comme moom dem na ndax fii Dakar dafa bëri ay fitna bëri ay problème ñun tamit léegi nañ gàddaay ñu dem buñ newee foofu ñu ut fa kër dëkk foofu toog loolu moo ñu fa yóbbu woon hijra ñu daal di bàbbeeku dem biñ demee sama xarit boobu ma doon junj sànq jëndoon na fa terrain commencé di fa tabax ñu dëkk foofu ñu ëbbee benn mbokk hébergé wu ñoon kër hébergé woon ñu këram ñu nekk foofu dund fa tamit dund bu xaw a tumuranke tuuti mais ñi ngi fa nekkoon di jàngalante man bi may dem utal naa ay téere boobu commencé naa sama njàng di dëgër ma ut ay téere dem bi ma demee li ma waxoon mooy damay góorgóorlu foofu jàng fa tamit biñ demee tamit daan nañu am ay jotaay ak asan di jàng ci tafsir ibn kathir suñ jullee fajar ba pare bu ngoonee ñu jàng شرح أصول الاعتقاد بو الإمام الدارتائي يويرن دون دف موي جانغ بوم جانغ قراءة لون أه، دان نا فاتيميت موكل لو بري سي قران لوخ ماكو دان موكل سام بوب ام بروم كاي بي ندك موك بي ندارون كرم امون ناي تول دار كاسي نيكول فوف فلا دان ديم دان نا فو سوبغي تي كوم بري دي موكل لو بري سي القران ndax jamono yooyu tamit la ci nekkoon mooy xel mu ubbeeku ci wàllu mokkal yàlla baaxe woon nañu ko lool lool macha daan naa mokkal léeg-léeg ci benn jotaay loo xam du ma wax nit damay toog rek noppi du ma wax kenn ndax léeg boo ko waxee nit sax mën na yaakaar ne li nga koy wax du na loolu doon nañ bëgg mu dellusiwaat loolu mooy wane ne boo tollee benn âge euh, ndax boo demee ba weesu ko qualité yi amoon yi nga amoon ci âge boobu koy ñàkk ndax boo demee ba yitte yi àdduna wàllu njaboot ak yooyu jot ku amoon ak xel mu amoon ci wàllu mokkal lu ci bëri dee wàññeeku ak biñ nekkee foofu tamit dem nañ ba foofu quelque temps ñu xam ne fii ndakate bon demeewul noonu parce que nit ñi affaire sunna intéressé wu leen waaw da ngay dañ daan sax def jawla dañ daan nañ jékki-jékki asan ne mën a dem ñu dugg ci kër yi non subhanallah yëg-yëg boobu mu am ak diirte bi mu def ci yow loolu jafe na nga gis tey nit ku koy def ci yow mu ne mën nañ dem wallahi lazim ñuy dugg di dox man ak moom dem ci biir kër ñëw nuyoo toog def waxtaan waar leen mu xamal ma ne lii dañ ko war a def parce que waru gar la dañ dëkk ci dëkk bi bu ñu fi gisee ñaawteef dañ ko war di ko dox benn bis tëgg la dégg rek ñuy tëgg fenn mu ne subhanallah xoolal li naqarlu ko naqarlu boo xam ne yow da ngay mujj yow sa bopp da ngay tiit parce que dem nañ ci dëkk bu mel noonu dëkk ba rëyul woon jamono rëyu tax noo waxtu donte dëkk bu xool mag tuuti la mais séntu woon nañ am fa benn dund bu dal pour mën fa sàmm suñu diine moom bi mu sentiré gis yu mel noonu commencé di fi am dafa tiit parce que bëggul woon dem foo xam ne yu mel noonu dafay amaat ndax loolu ko taxoon di daw jamono yooyu tamit euh, yu mel noonu lañ daan def léeg ñu dem ci benn jàkka dem foofu def fa benn waxtaan daal di ñëwaat ak yu mel noonu fi ñu daan dëkkoon ci kër gi tamit defoon nañ benn jàkka fa lañ daan julle mais daal euh, mooy compréhension bi nit ñi di am ci wàllu sunna ak ni ñuy accepté Dakar jamono boo demee ci dëkk yu mel noonu nit daanaka dañ lay xaw a beddi dañ lay xool bëtu kii ak ñun bokkul voilà duñ booy wax ñoom sax daanaka duñ la déglu mu xaw a jafe tuuti après moom tamit moom ay jamono jamono ay jafe-jafe soxnaam ci wàllu wér-gu-yaram dellu Dakar mu toog fa lu yàgg après mu mu ñëw euh, beneen mbokk bi ma fa nekkaloon tamit ñibbi man rek maa fi mujjoon des mbokk bi nga xamante ni moom lañ doon jàppalanteel ci projet boobu moom demoon na aji jaar Gambie bi muy ñëw indaale ay téere téere yi bëri téere Cheikh Nasruddin Albani la bi mu indee téere yi tamit ci man la ko bàyyi woon man maa nekkoon ci néegu Assane Assane bàyyi bàyyi yooyu ñëw des fa di téere yu bëri yu jëndoon mu jaare Gàmbi ñun ñoo ko joxoon benn liste Assane moo ko bindaloon ci téere Cheikh Nasir Albani ak ay téere borom xam-xam téere yooyu bi ko indee moom tamit bi mu fa ñëwee après dafa ñëw ñibbi ci dakaar man rek ma des fa nekk ci nekk bi yore téere yi téere yooyu li ma ci doon jàng kenn xamul nu mu toll guddi gu jot daanaka daanaka daanaka ci lay fanaan damay taal sama sondeel ci laa daan jàng sondeel lay taal tim téere yi mokkale naa ci ay masaay yoo ne ba léegi fi ma toog maa ngi koy teewul mokkale naa fa ay xadis yoo xam ba léegi fi ma toog nii maa ngi koy teewlu loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax loolu nekkaat naa fa nekkaat naa foofu lu yàgg ginnaaw bi ci lañ gars wax ñu ne léegi naa ñibbisi ñu ba hijra ba tamit ba tamit nañ ko bàyyi woon ala kulli xaal du ma ko nettali trop trop parce que lu xaw a la ci léegi nu ma koy nettali sama yenn jotaay bi bu ñuy waxtaan gars yi di reetaan noonu mais bon gars daal dañoo fa ba ko yëf xaw na kii tuuti gars yi tasaaroo liñ mujjoon wax moo nañ changé léegi idée dem Saoudia parce que mbir mi foofu la daal fii daal la fi kiiwul gars yi ne léegi nañ ñëw Dakar ko ñëw jënd xool ay moyen pour pour dem foofu gars ci noonu lañ daafantoo dem man bi ma fa toogee tam gisuma lu ma xam ma boobu bagage ñëw ñu bisi waat Dakar ñu ñëw bu ñu ñëwee bon commencé waat nekkaat noonu di fréquenté waat course di continuer di jàng sama njàng daal teguwul ci yoon boo xam ne yoon bu jub la bu a xam mais yàlla xel bu ubbi woon di xel bu ubbeeku ci wàllu jàng ma ci daan góorgóorlu di ay téere ak di jàng di déglu ay kaset ci noonu laa doon jàng dem ci baam ci niveau arab bu dëgër di wax arab di li jàng ay téere di déglu ay kaset noonu laa doon jàngee mais toog ak koo xam daf ma daan jàngal ni jàngal ma formé ma aw ma ko mosuma ko am sama loolu ma jafe woon la euh, Aline Gueye Aline Ndiaye Gueye benn bu rufis yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jégal daf ñu daan fréquenté tamit ay jamono surtout ci jamono yooyu noonu bi ñuy dem Kaarang ak bi ñu ñëwaatee ci lañuy boobu jamono ci lay soog a pare jàngam ñibbi mu dégg ñu ñëw di ñu fréquenté benn tali daan ñëw foofu temps mi liggéey ci rajo bi dunya bu wàccaan def pause ci ñun lay ñu añ si bu ñëwee yendu foofu ba ngoon daal di delluwaat moom tamit yàlla na yàlla yërëm ku jege woon jeunes yi la mooy nit koo xam ne ku gaawut mën a dugg nit la loolu tamit force am la woon Aline Gueye moo mën a ñëw tey xam la tey toog fii yendul la fi waxtaan ak yow moom loolu du dara ci moom moom daanaka refusque moom daawuñ ko gis Dakar daan ne rek te doo xam fu alin ngay nekk doo ko xam bu tayee mi ngi fii boo léegi mi ngi fee moo tax ñëpp ko mujjoon xam ñëpp ko bëggoon tamit mu jege woon mu trop wax dëgg yàlla bi mu ñëwee tamit daan ko munaqasha lu bëri ci ay masail loolu tamit neexoon na bu ñëwee ñu toog di munaqasha parce que yi ma daan gëstu di di ko jàng daaw ma gis ku ma ci mën a discuter parce que ñi ma daan nekkal xëy na demoon naa ba benn jamono sama niveau dépassé leen tuuti lu ma mën a dugg ak ñoom seen masaay li ma mosaan ñëw ci moom laay mën a toog di ko munaqas daanaka dama koy munaqas ba buy dem léegi moom itam daan nañu dañu ne yéen yéenay ahlul fitna wa dajja yéen waa bentali yéenay boroom coow li waaye nag yéen a fi samay mbokk yéen rek laa fi am comme ay mbokk loolu lañ daan faral di wax yal na yàlla déggal moom tamit jaxasoo woon nañu ak moom lool lool lool jànge ci moom tamit lu bëri ci wàllu dundam ak tamit ci boo nekkee jeune di daawa yàlla te la jox tur tey boo war a tey ak ndànk boo war a def loolu du ma ci sori mais daal tey baax na ci ak di moytandiku di moytandiku sinon dafay exposé sa bopp ci yoo xam ne des fois na la indil ay jafe-jafe yal na yàlla jéggal ko yal na ko yàlla yërëm bi nga xamante ni tamit euh, noonu ma nekkaat Dakar di jàng di góorgóorlu ci njàng mi ak yooyu benn bis dama jóge falaax da daan dem jamono yi daanaka benn falaax bu Colobane fa lañ daan jullee même tra xiyaamu layli foofu rek lañ musaanoon fu ñu mënaan jullee daaw jafe woon na nga gis yeneen jàkka yoo xam ne nga fa dem di fa jullee jumaa fa la ñuy dem dañuy dox aller retour dem ñëw jóge benn dem bu dee bu dee tamit xiyaamu euh, layli la ci ramadan yi tahajjud bi ñu daan def dañ daan dox dem bàyyi deux heures du matin ñu doxaat ñëw bu ñëwee toog xaar ba fajar jot ñu xëdd sooga nelaw benn jour julli nañ jumaa foofu di ñibbi mu ma lan moo tax dawra bi asanka mu ne ma jazaahullahu xayran mu ne ma lan moo tax dawra bi ñuy def fii Saudiya pour dem jàngi Medine doo doo ci def affaire bi choc mel def ma lu mel na choc ci lu côté yu bëri benn côté bi mooy gaw ma woon ne am naa niveau pour mën a participer fu mel noonu ñaareel bi mooy musuma jàng ci école aw ma ay diplôme ma ma ne ko ah man foofu est ce que mën naa fa def parce que man aw ma ma diplôme te foofu ma ah waaw mu ne ma léegi moom am na ku mu xam koo xam directeur benn école bu mag la yaakaar naa ni xëy na su waxee ak moom dina ma ci mën a jàppale benn bis mu bind benn lettre jox ma ko jamono yi moom mi ngi dëkk parcelle mais dañuy faral di gise bi ma joxee lettre bi ma dem julli àjjuma foofu dem jox ko directeur école boobu wëllëreem la woon mu liir ko taxaw xool xool xool xamul nu muy def wax dëgg yàlla ci sàkku boobu nga sàkku na ko ci moom mu daal di ne ma léegi sama doom xam nga léegi nu ñu def man mënu ma la jox kayit yi noonu léegi yow léegi da ngay dem nga participer ci concours boobu ñuy defee grande mosquée bu fekkente ni jël nañ la sélectionné ñu war la jël defal la entretien pour yóbbu sa dossier boo ñëwee man dinaa la jox diplôme ma def boo xam ni man li ma ko comprendre woon mooy bëggoon na ma ngàntal mais amul woon yoon bu mu jaaroon pour ngàntal ma mais il fallait que xëy na mu jaaree parce que ba may wax loolu seen tuul woon ne ku mel ne man ngay benn jeune noonu rek di taxawaalu di dem ci concours bu mel noonu nga xam ne ay jeunes yu jàngee ci ci école yi ba am seen i seen i bac ñoo fay def ñoo fay participer dinaa mën a dem fu mel noonu di fa am euh, am réussite. ma waxe loolu tamit ma ne ko baax na ma dem bi ma demee concours bi ñëw ma dem def participer ma jàll ñëw dugg bokk commencé di jàng bi ma commencé di jàng. commencé di di di indi ay yenn masaay di ko posé ustaas yi di discuter ak ñoom ma gis ne bu ñu génnee élèves yu bëri dañuy ñëw ci man di ma interpeller ci li ma doon ak ustaas bi pour ma expliquer leen ko parce que comprendre ma ne waa léegi lii nu mu demee man xaw ma ne woon ak xëy na sama taqale bu ma taqale ni mën naa comprendre masaay yoo xam ñu jàngee ci école yi leen di a dépassé tuuti du ñëpp nag parce am na sama xarit boo xam ne moom tamit après am na dem tawfiq dem jàng yi ñëw léegi ci ñi yëngatu ci wàllu daaw bi la bokk moom mi ngi foon il intelligent ku góorgóorlu depuis boobu jamono bu fekkoon na muy góorgóorlu ci sunna mais ñu ci bëri ci ñoom ñi nga xam dañuy jàng arab bi nii rek nekk ci école yi yu ci yooyu xamuñu ko comprendre ñu loolu xawoon ma interpellé tuuti dès le début bon mais moo continuer ci loolu di jàng bu laajee discuter yenn masaayil mi discuter ko ndakate ustaas a repéré nañ ma naar yi fa doon ñëw di jàngale repéré nañ ma ay université islamique lañ yàlla na yàlla fay leen tamit wax dëgg yàlla ay gars yu baax ñoo fa daan ñëw di ñu jàngal surtout ki jiite woon dawra bi góor gu góor gu góor gu amoon kii la ci nit euh, amoon xeet trop tamit ci sen sénégalais yi seen njàng ak seen formation ak yooyu jazaahullahu xayran jarul may tudd turam xëy na ñenn nit xam bi ma repéré après benn jour nit ma interpellé ko ci benn masala ñu wax ci ba pare ma léegi yow am ngay say say diplôme jot nga ci ma ne ko samay diplôme mi ngi école mu ne ma léegi demal nga jël ko nga ñëw ñu defal la entretien te entretien bi ko war a def ginnaaw bu ñu defee suñuy suñuy suñuy euh, composition ba pare bu formation bi jeexee bu ñu defee kii en fonction des notes yi ñuy ci sélec yi ñu am ci lañu sélectionné pour def entretien yi nga xam ne lañu yóbbu seen dossier ñu def ci la ma wax ne ma naa ko indil samay diplôme ma ne xoolal li yàlla di def kii mi ngi ma woon naa naa dem participer su ma su ma entretien mu jox ma ma daal di jël oto ci saa si dem bi ma ñëwee ma laajte ko baag si bureau ñëw nuyoo toog ma ne ko mës naa la wax lii ak lii ak lii nga wax ma lii léegi nag def naa participé naa directeur kii bi concours ba nee na ma naa naa ko indil samay diplôme loolu laa ñëwoon di la ko wax dafa tiit bi ma ko waxee loolu dafa jaaxle dafa tiit ndax seentuwul woon ma mën a am lu mel noonu benn ñaareel bi tamit mooy bett na ko ndax mu ma même ñun suñuy nañ leen foofu ñu def formation kenn defagu leen defalagu leen entretien yow naka lañ la mën a defalee entretien kon léegi foog nga jël ma justificatif buy wane moom moo la wax loolu ma ne ko d'accord ma jëlaat dem bi ma demee ñu wax ko euh, góor gi ne ma yor benn kayit ma jox ko benn bout de papier ci daal di signé ne dafa soxla samay ko a ñëw laa dem jël samay kayit ñëw ñëw wax ko mu jaaxle lool tamit wax dëgg yàlla waaye mu obligé comme moo ko waxoon mu dem defaral ma ay këyit defaral ma relevé de note defaral ma diplôme ak lépp te itam moyen la pour pour mën a continuer sama jàng parce que lu mu doon xool parce que diplôme bu ñu ko waxee lan la ban njariñ la mooy am niveau am niveau bi doo ma ne diplôme boobu diplôme bu ma bu ma triché la wala leen la mais moom niveau bi la doon xaar ci man niveau bi mi ngi fi c'était juste pour def pour def concours bi su ma ko amee war a dem université kon ne sama jàng mu jox ma diplôme bi te loolu tamit day day defar seen turu école parce que école bi tamit am étudiant yu baax yu dem jàngi ji à étranger représenter école bi représentation bu baax loolu day yàq day yokk réputation sa école ci laa jël diplôme yi ma dem yàlla na ko yàlla fay tamit wax dëgg yàlla moom tamit parce que mënoon na bu ko neexoon mu ne ma xalaatu ko du ma ko jox mais mu jox ma ko bien que nag note yi mu ci defoon faible na trop euh, bi ma demee tamit euh, góor gi xool ko ne ma ah sa note yi faible na Eh, sa moyenne bi moyenne générale bi faible na trop mais góorgóorlu nga am ay notes baax ci ci ci kii bi ci ci ci formation ma ne ko d'accord incha allah ñu defal ma entretien bi jamono boobu tamit li ma yàqaloon bokk na ci mooy xaw ma aw moon expérience su jàng mooy jàng bi nga xam mooy jàngu classe mosuma koo def sama àdduna mosuma def examen sama àdduna xaw ma sérieux bu mu laaj ak rigueur bu mu laaj xaw ma ko woon dama jëloon mbiri trop a la légère loolu xaw ma ko woon cee jaar bi ma defee première année boobu ñu defal ma entretien yóbbu sama sama ma def kii bi composition yi ak yooyu année boobu kenn jëlu ma mais sama xarit yi nga xam ne ñoom laa xamante loon yëpp ñu ñu doon jàng parce que ñu yóbbu leen ñu dem ci lañ jàngee mais affaire bi yàlla baaxoon na mu choqué wu ma benn benn benn benn effet wallahi wallahi lazim dama gis ne dama doon continuer toog fii Sénégal jàngaat ba déwoon ma tànte war xool boo xam yàlla def ci jamono jooju ci la Cheikh Mouhamed Ahmed Lo ci la ñu bisee ci jamono yooyu noonu jóge Saoudia ñëw bi ñëwee tamit yàlla def man bokkoon naa ci njëkk jeune shabab yi njëkk a dem teel a dem pour jege ko bi ma demee ma teel ko jege commencé di di fréquenté foofu bu baax mu am xalqa di jàngale may dem foofu bokk ñi nga xam mu laajama xalqaam bi ba yàlla def mbokk bi nga xam ne moom moo ko yoroloon euh, tasdiraaj bi daan bi daan jaay ay kaset di ci ñu amoon euh, bourse pour dem jàng ji léegi man ma jël place am war a gérer kii bi loolu day tax ne ma gën koo jegee ci encore léegi ci laa jógee bentali dem dëkk ci parcelle man ak kër gi Ibrahima Xalil loo dëkkoon noonu ñun ñoo fa dëkkoon ci suuf foofu tamit dasar daara ñu loolu dañ fa amoon eh, ala kulli xaal du ma waxaat du ma duggaat tamit ci détail suñu suñu suñu daara jooju mais daara jo xumboon la foofu ci suuf xam nga rek yëfu ndonga daara fa lañ daan dem ay jamono sax Ibrahima Cheikh Ibrahima Xalil loo na fa yàlla fay moom tamit def nañ jël ci moom eh, naxu muy grammaire arabe parce que al architecte ni mali daan nañ dem di ko jàng ci moom daan nañ dem di ci moom par mais àggul mais commencé woon nañ ci jamono yooyu di ko jàng ci moom dañ koy jàngal alfiyatul malik ñu koy mokkal jotoon na di mokkal lu bari ci ci loxoom yàlla ko yàlla fay aka neexoon jamono yooyu ñu àggale woon suñu njàng moom doon nañ jëriñ lool lool lool lool waaye xat-xat moo taxoon mënuñ ko àggale ndax xam nga sëriñu daara par ngoon nga bëgg a toog di jàngal day xaw a jafe tuuti bi Cheikh Mouhamed ñëwee ñu dem ci moom commencé di muraadama xalqam bi dafa jàng dafa jàng fiq di fa jàng euh, aqida di fa jàng mustalahul hadith muy ay ñetti matières yu essentielles ci xam-xam ma jàng ci moom ci côté xam-xam bi lu bari lu ma jariñ ginnaaw bi mais tamit formation bi ci wàllu jàng parce que loolu mosuma koo def sama cursus yëpp dama daan taxale maa ngi nag soog a toog pour war a jàng nag jàng boo xam ne dañ la ci évaluer di la defal ay examen loolu tamit jëriñaat ma lu bari kon toogaat naa fi at ak li ma jotoon njëkk a jàng ci moom at bi nga xam ne aw ma aw ma bourse pour dem at boobu yëpp ma toogaat ko jëriñuwaat ko ci moom li ma gis après ginnaaw bi mooy ndakate sama première fois bi ma tenté su ma amoon bourse su ma demee ni ma waroon jëriñoo sama ma ko jaay du ma ko am du ma ko def ndax amaguma woon expérience ñoroguma woon ci wàllu jàng su ma ay erreur rek laay def bi ma toogaatee année boobu ci deuxième année bi laa defaat yàlla defaat tamit ma amaat tawfiq ñu jël ma euh, ci deuxième année bi ma defee euh, cheikh boobu ma doon wax ne moo doon diriger concours bi bu wóllëre Cheikh Mouhamed Ahmed loolu ku ko naw la ku ko fonk la moom moo jël sama dossier personnellement yóbbu ko ne insister ci université ba ne foog kii ñu jël ko étudiant bi foog ñu jël ko xamoon demoon na ba ràññee ma xam ma surtout bi mu xamee ne tamit ndongawu Cheikh Mouhamed Ahmed loola ma jànge ci moom loolu tamit bi mu ko xamee dafa tax mu gën a jël dossier bi dem ni ma ko gën a xamee bokk na ci mooy année bi nga xam ne ci la bourse yi ñëwee parce que boo participé ren déwén la bourse yi di ñëw déwén nga bi ki nga xamante ne bi mooy responsable bourse yi ci université ba moom moo ñëw moo dirigé woon concours bi ci année boobu kooku bi mu ñëwee maa ngi dajeek moom ambassade fekk ma dem fa di présenté wu foofu pour wane dama am bourse dama war a ñëw def sama démarche formalité visa bi mu sama tu fekk moom mu ñëwoon fa moom tamit ci ci ambassade Arabie mu ne ma yow yaay diw ma ne ko waaw mu ne ma laa ilaha illallah yow day cheikh diw ni mu ma sonale woon ci yow ne ala kulli xaal dañ laa a jël ma ne xoolal man dinaa ñëw sama bureau dama consulter lu bëree bëri bëri ci ba la après ci yàlla def ñu daal di am bourse dem jàng ji biñ demee tamit ñu taamu kuletul xadis biñ ñëwee di def entretien parce que biñ ñëwee indi dossier yi ñu war ñu defal entretien ku nekk laaj la ban faculté nga bëgg a def dama ñuy toog ak kenn ñu def mu laaj ma ay ci wàllu xadis ma tontu ko mu laaj ma tamit eh, ne ma ñan ñoo la tazkiya ñan ñoo la bindal ay lettre de reconnaissance recommandation ak yooyu ma wax ko docteur Mouhamed Ahmed Lo mu ma xam ma ne ko waaw dafa daal di tëj ci kii daal ne ma xalaat doy na kon baax na mën ngaa dem loolu tamit marqué woon na ma trop ci xam ne xëy na ñoom fonk nañ ko jox nañ ko cër te loolu xëy na Sénégal ñu bëri xamuñu ko ndax Sénégal da ngay jàngi xam li xam yàlla may li ngay may ngeen ñu ay xale yu ndaw di lëkkal-lëkkale loolu mooy suñu fitna Sénégal suñu problème ay xale yoo xam ne trouvé wuñ dara defuñ dara seen àdduna taxawaalu ba sonn ñëw di di lëkkal-lëkkale bëgg a yàq li ngay def allahu mustaan léegi bi mu demee noonu après ci la dem def bi ma ñëwee sax di def faculté hadis seen jàng xaw na metti ak yooyu ñu bëri dañ ko xawoon ragal ndax njàng mi fa amoon surtout jamono jooju système bi fa nekkoon ak léegi bokkul ci la xawoon gën a metti tuuti am na ñu doon xaw a hésité sikki sàkk naan ma ah te nga waxooloon fu gën a yomb foofu nga dem noonu kullee faculté boobu parce que affaire yi du xaw a dis yow ma loolu amul problème nañ dem rek bi mu demee tamit yàlla baaxee defal nañ taw fiix wax dëgg yàlla njàng ma diisul benn yoon ci yoon te daan naa sax loo xam ne sax xëy na yooyu tamit waxuma ko pour wane wala mais wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ci lay dellu daan naa discuter ak prof classe mu taxaw ne ma li ngay wax ni foo ko xamee benn jour suñu prof interpellé nañu par exemple ma joxe exemple bi ci benn masala parce que ñu ngi soog a ñëw première année lañ nekk dañuy formé wu am na yoo xam ne mënaguñ koo xam muy toj fekk mu ñu jàngal naylul awtaar mooy fiqul xadis bi muy sharx benn xadis après muy expliquer wala xadis bi wéram ak ñàkk wéram ba indi na xaakim xakama ala hada al xadis bi bi shuzuz mu ne xaakim dafa ne xadis bi shaad la léegi xadis bi nga xamante ni dafa wér nekk ci di expliqué daal ne léegi nag interpellé ci classe ne lu tax xaakim wax ne xadis bi shaad la te boobu ñun jàng ak xaajagoon bi àgg ci mustalah lu ñuy xam lu tax ñuy xam loolu mais man comme jàngoon naa ci cheikh mohammed al fati suyuti maa ngi ko doon jàng si moom ma ne ko bu xaakim xukmee kii xadis bi ne xadis bi chaad la c'est parce que mom la yashartu fi al al mukhalafa mathalan wa wa wa مثلا inma mutlaq مطلق tafarrud faqat maanaam bu fekke waji dafa wér ci xadis ba rek day jàpp ne shaaz la donte sax xadis bi ñu ko solo ñu wër lañ amul wute bu ci nek ak yoy bi ma expliquer loolu ba daaneel dafa taxaw ne ma li ngay wax foko ko naka nga xamé li loolu la ma wax ma nopi man ñu ko waxuma dara grâce dina tek après mu continuer wat mais boobu man sama sama bir ma ngi nan jazallahu cheikhana khairul jazaa parce que jotoon naa toog jàng ci moom loolu njàngin mu mokk boo xam ne wax dëgg yàlla jamono yooyu xalqa boobu rigueur la amoon parce que ay ndaw yu daan sàkku xam-xam xiifoon xam-xam ñoo toogoon di ko xaar bi xalqa bi ñëwee ñoom ñoo ko songoon di fa dem niveau dëgg-dëgg moo fa amoon jamono yooyu xëy na xaw ma léegi ñiy fréquenté xalqaam nañu mel mais jamono yooyu moom yàlla baaxee woon na ko moo am ay tullaab yoo xam ne amoon nañ niveau ñoom ñëpp ginnaaw bi dem nañ ñi ci ëpp si ñoom dem nañ université islamique jàng ji foofu biñ demee aussi def nañ fa prouvé nañ fa biñ demee fu bokk nañ ci meilleur étudiant yi nekkoon foofu daan naa munaqasha ci ay masail aqida ci al asma wa a ak rawatina ci deuxième année bi ay xawaayit ak ay masail yoo ni des a tuuti léeg-léeg samay moroomi étudiant dañ ma ci daan interpellé maa ngi fàttali ko sax ginnaaw bi damaa mujj bàyyi discussion classe yooyu dama ko mujj bàyyi complètement na xam nga rek boo demee ci bërëb yooyu da ngay dem ba tamit yenn yi day xaw a say jikko day xaw a soppeeku tuuti mujj gi damay dem rek toog ci ginnaaw noppi dootuma discuter benn sam benn collègue ñëw na koo xam ne ab arab la foofu la ci saoudien la mais d'origine yéménite la mu ñëw ne ma lan moo tax léegi dootoo discuter classe da nga daan def sa première année bi ñuy soog a ñëw ak deuxième année def ay discussion yu am am solo classe bi mais léegi damay gis ne dootoo wax ma ne ko noonu dara dafa am lu tax rek bàyyi noonu loolu yépp kon lu muy firndeel rek mooy sant yàlla parce que tamit bu nga xamante ni dem naa foofu ci la sama asma bi yëngatoo ndax xaw ma mosuma xam ne dama am asma mais comme climat bi foofu seg na ci climatiseur yi ngay fanan ma commencé di am sama dënd bi di ma daaneel ci laa dem ñu consulter ma soog xam dama dama am asma mu sonal ma foofu trop tamit daan naa absente lu bëri du ma dem classe parce que des fois damay xëy daanaka nooyi sax du ma ko mën chaque trois jours presque ma dem ci kii bi nekk foofu dispensaire bi nekk foofu ci université bi ci hôpital bi ñu prescrire ma garab garab yi tamit ni ma ko doon jëlee demoon na ba tiital ma mos naa fa am sax crise boo xam ne dama dem ci beneen hôpital public benn médecin consulté ma bi ma paree ci la ma jox euh, pompe mooy ventoline ci laa njëkk commencé utiliser pompe ventoline wax naa ko sax ne ko dégg naa pompe bi boo ko utiliser benn yoon da nga koy tàmm da nga ci am dépendance mu ne ma noonu la wax rek égyptien la benn égyptien la mu jox ma ko ci laa ko commencé utiliser ba tey ji may wax ni bàyyiwu ma ko bu ma toll damay utiliser pompe bi des fois su ma ko utiliser wul daanaka du ma xaw a mën a noyyi foofu tamit ba fa nekkee ci sama situation ñu bëri xëy na xamuñu woon loolu ci man mais sama santé détérioré woon na woon bu baax a baax daan naa toog du ma mën a dem classe bi may def quatrième année ak santé naa ba nga xamante ne sama taux d' absence àgg na ci ñi nga xamante ne dañoo génne seen i dossier ne leen bu ñu indiwul justificatif duñ def duñ def examen dem ba àgg ci ñi nga xamante ne bu ñu indiwul justificatif dañuy arrêté seen jàng àggoon naa foofu ñu ñu ñi nga xam dañu war a tax seen tour mais ma dem waxtaan ak sama benn professeur ne ko man dama feebar damay dem hôpital lu bëri après mu ne bu fekkee loolu da ngay dem ñu defal la benn euh, kii médical nga indi ko certificat nga indi ko ma dem expliqué ko médecin bi ma doon suivre mu ne ma demal sa seen wu faculté nga nga nga nga wax ko expliqué ko mu bind lettre bu la ko joxe boo ñëwee ma defal la ko ma dem ci suñu ma bind benn lettre bu doy waar boo xam ne moom <laughs> yàlla mu ma ko baaxee ma toog sama sama sama table laa toog classe bind lettre bu macha allah dem jox ko suñu amit muy recteur faculté bi bi mu ko liiree euh, wala boog directeur xawma directeur département xawma faculté bi la ñëw bi mu ko liiree ala kulli xal euh, tegu ci baat dafa daal di jël digam signé ko ma dem ma demee jox ko médecin médecin bi ci suba ba ma ñëw mu jox ma certificat jox ko ñu dugal ko sama dossier. bi ma ñëwee toog classe ñu génne ñi nga xam ne seen i tur dañu war def kii ndax dañu absenté lu bëri ak yooyu. ñu bëri dañ ñëw ci man naan ma lu tax sa tur gisuñu ko man leen man maag yéen bokkuñu man daw ma rek pour daw damaa wérul damaa wérul daaw ma ñëw classe wax dëgg yàlla loolu tamit jeexital na sama njàng ndax su fekkonte ni xëy na daan naa ñëw chaque jour di toog di suivre comme ni ma war a suivre te loolu tamit dese dese dese woon naa koo def ak euh, daal di gën a réviser kon xëy na doon na notes yi na gën a àgg fenn xëy na ci notes daal doon na gën a dëgër mais notes yi xëy na demeewuloon noonu ndax jotuma benn solo bi mais compréhension bi moom alhamdulilah fi woon bu baax a baax a baax a baax te dama daan jàng compréhension bi moom yàlla defoon na ko loolu tamit maa ngi ciy sant yàlla bu baax euh, bu ndax euh, bokkoon nag euh, xëy na classe boo xam ne ñun ñaar ñoo demandoo woon Sénégalais moom jàng na ci école yi bac la am ci école bu baax sax la génne mais musuma ëpp ay notes te moom chaque classe bu fascicule bu am génnee sax moo koy photocopier indil ma moom day am lépp di ko di ko suivre di kii te man loolu daaw ma fekk bu waree bu ñu waree def concours examen ma dem xool lu ma mën a xool ñëw mais ba ni ñuy génnee suñu quatrième année man maa koy raw <clears throat> te mbir mi du ci sax rek raw ci wàllu note mais li ci gën a solo mooy compréhension li koy gën a mooy am na seen benn collègue boo xam ne ivoirien la moom daanaka ci ay P la daan jël ak deux mi di def étude supérieure am ndax num daan parcoriser ay leçon ak num daan favori ci njàng mi ak xet ci wonon professeur yi waaye buñ mosoon toog ci loo xam dañ koo jàng di masala bu ñuy toog di ko discuter buñ ciy wax du ci dugal làmmiñam ndax mënu cee wax lu leer ci sa bopp mënu cee wax lu leer ci sa bopp musul ñemee toog di discuter ak man ci ay masaayil loolu yëpp tamit dafa amat lu muy lu muy junj li wane ne mbir mi li ëpp solo ci xam-xam bi rek mooy nit ki dégg ko am ci dégg-dégg bu leer ak takk ko takk boo xam dina ci mën a jariñu ci loolu moo ci ëpp solo surtout teel a nangoo jàngale teel a nangoo jariñu ci xam-xam loolu ndaw li jàng war na koo teel a tàmmal boppam moo tax su ma gisee léegi mbooloo mu bëri dem di jàng ji foofu ak néewu jàngalekat yi Dakar damay jaaxle dama naan ana ana suñu jàngkat yi dem foofu di jàng ji léegi dan moo nekk seen i jubluwaay dalay lay jaaxal ay jeunes yu bëri waroon nañu wax dëgg yàlla buñ ñëwee di former jeunes yi jax sox moom di jàngale di jël ay téere di jàngale loolu dina leen gën a jariñ ñoom ci seen xam-xam bu baax a baax mais allahu mustaan man bi may jàngale boobu xaajaguma bay dem foofu ci laa commencé am xalqa di jàngale jàngale ba bi ma demee chaque vacance su ma ñëwee damay continuer di jàngale chaque vacance bu ma ñëwee balaa may dem damay jàngale sama njàng dama ko doon continuer bi may bàyyi tamit bi may jóge foofu tamit di ñëw samay projet moo doon dem fu mel ne Canada jàngi amoon prescription inscrit fa ci benn université après bi ma ñëwee dama ay nit di suyaat ay mbokk ci daal toog bi Sénégal jàppalante ak mbokk yi moo gën dem ci dëkk tubaab yi ak yooyu ginnaaw bi ci laa soofantal mbir ma ba mujj antuwul mais dossier bi matoon na ba inscription bi lépp mat pour ma dem continuer samay étude dama demoon ba gis ne njàngum diine bi tamit boo ko defee ba baax na nga boole ci leneen loo xam dina tax nga mën koo xëy na mottali ci beneen côté bi muy wàllu àdduna bi ci wàllu fàggu alal bi ak yu mel noonu ndax xaw na tamit metti sa dund lépp nga consacré ko ci dem jàng ci dina ñëw bon yow ñi ngay jàngal ñoom ñi ngi jàng àdduna ñi ñi ngi def seen liggéey ñi ngi xëy na sabablu seen wàllu àdduna lu tax ñu mën xeyna dundu tek seen njaboot seen condition yi yu ci bari yaa leen doon jàngal ñu nekk université ñu nekk institut tey ñu ngi yor seen auto di dund ci condition yi dañ lay romb ci tale bi la pëndal <laughs> allahul mustaan yow léegi du du du du du du liggéey du dara du rien du tout da ngay konne rek buñ la soxlaa wala téléphone ne la am na conférence buñ bëgg ñu ko defal fii am na buñ bëgg ñu ko defal fii ngay dund ci yenn condition yi yaag sa famille kenn du xam kenn du yëg léeg-léeg sax nga woote ne du ma mën a ñëw jàngale si fekk pass bu la yóbbu moom nga amul yu mel noonu dama ko teeloon xëy na xalaat mais yàlla def ñu def sutura bi ma ñëwee am na ay mbokk yu ma doon jàppalanteel yëngatu ci wàllu informatique ak yooyu ma nekkoon ci tuuti après jóge ci loolu amaat beneen projet wàllu école école ba tamit yàlla defaloon ñu ci réussite mais xam nga liggéey tamit dafa jafe nit ñi boo sook ñoom léeg-léeg xëy na tàmbali bi intention yi dina baax waaye nit ñi daal nit dañuy ay waxkat lañ daal nit ñi dañu ñeme wax te li ñuy wax dañ ko xam des fois wax yi nit di wax ak yooyu mën na yàqaat lu bëri bi ma demee tamit ba projet boobu ñor ba commencé taxaw te lu ñu ñoroon sam bopp la ma bind ko teg ko tàmbali ko yàlla xam na fi mu jaar ba ba ba réaliser wu yàlla moom xam na ko xëy na nit ñi xamuñu ko mais yàlla xam na ko bi loolu amee tamit euh, ginnaaw bi ma génnaat foofu ci ay sabab lu ko waral te yaakaar naa ne loolu moo nekk ci ak Cheikh Mouhamed di jàppalante ak moom ci wàllu jàngale ci ci kulle ba yu mel noonu kon daal ci gàttal li nga xam ne loolu laa bëgg a junj ci waxtaan bi mooy jaar-jaar yi gis nga fi ma ko commencé ak fi ma ko daanelee xaw na ute trop ci métier yi nga xam ne wax naa ko ak jaar-jaar yi nga xam ne wax naa xam ne un pour cent sax waxuma ko un pour cent sax waxuma ko ndax yenn yi xëy na daxaw a dis tuuti ma koy ma koy wax ndax yenn yi tamit doo ci jaar def ko ba pare di ko nettal day xaw a day xaw a saay rek tuuti comme ni ko gars yi di waxee ci jaar toj jax bi xëy na bu ko laajee ci beneen yoon wala bu dee téere bu ñuy nañ ko def mais allahul mustaan jaar ci super yi jaar ci mécanique bi jóge fa jaar ci tailleur bi def ay mbir ba yàlla baaxee ñu ñu commencé góorgóorlu ci yoonu sunna bi njàng mi tamit gis nga kii biñ def muy cavalier seul biñ def dem ci yow kese amuloo ku la ci jàppale mais ma gëm bo ci jappé di góorgóorlu di jang di nga dem ba yalla mëna la bax nga ni ko motax bari na jeune yu ñëw di ma jàng man chaque fois luma lay insté mo jang jang lay insité jeune yépp ñu fi gor pour jang mën nga am ay activité Dakar mën nga fa nek ak tout mais bo gor gor lo mu jaral la nga def yeen sacrifice yi di nga jang man dama daan toog sama nek des fois guddi du ma génn tëj sama buntu am na benn biscuit bu daan jar 150 mom la daan di jënd sama 150 jënd ko pour sama warga ak sucre tek suma démé ci gaay yi bañ ci ma rocceeku ñu dugg sama nek tek dal di tiji sama téré di jang guddi gi damay toog jàng jàng jàng ba guddi gi sori loolu ma soog a tëdd noonu laa ko jàppee woon gisuma woon ku may jàngal mais parce que boobu laa jàppoon mais loolu mën naa cee continuer noonu laa ko doon jàppee chaque fois su ma gisee lu ma jaaxal su ma gisee ku ma ci tane ma ko leeral ma laaj ko noonu laa doon def bind naa ay boroomi xam-xam ci golf bi pour jéem a xool naka laay def pour jàngi ji foofu ci fàttali ku mel ne Cheikh Salih Munajjid mos naa koo bind di ko jooytu benn lettre bu gudd mu am yëg-yëg bu toll ne tontu ma encouragé ma may ma ay téere jazakallahu xeyran riyad ma bind dama gis boîte postalam ci benn livre am bu ma liiroon rek daal di jël ko bind ko lettre yónnee ko mu encouragé ma tontu na yàlla fay cheikh Ousaymin cheikh Mouhamed ibn Salih Ousaymin ko bind aw ma adresse ma jaare la ci euh, rajo boobu nga xam ne mooy Quran moo ko daan def nuur ala darb ma ko daan jàpp yoroon naa benn rajo bu ndaw boo xam ni su heure bi musaan jot damay jël benn fin de fer taf ko ci takk ko ci kaw suñu kaw toiture falaa ko daan takk nekk ci di xoj xoj fexe ba jàpp ko di ko déglu noonu laa daan dégloo Nuuru Alaa Darb pour rek a déglu borom xam-xam ko daan déglu ci SW bi laa ko daan lu ne laa ci daan def pour di ko mën a déglu Cheikh Aboubacar El Jazairi tamit durus yi daan def ci xaram bi ko daan teg foofu ci kii boobu dama ko daan déglu su ma daan su ma mosaan jàpp ba jot euh, genre émission yi mel noonu sama xol bi tey sedd noonu laa daan def moom tamit bi ma ko bindee lettre boobu yaakaaruma ne xëy na na ci li ma ko doon joytu mooy pour dem jàng ji ci daaraam ji mu daan yore foofu ci xasim daan fa jàngale rahimahullah euh, noonu hakada dem ci ay étape ci ci solitude boobu jafe nga gis koo xamante ni dina la xëy na mën a toog di teewe ay durusam di jàng jafe na ci jamono jooju ñu bari ci ñu woon ñëwaguñu ay benn benn moo fi ne woon ñu ci bëri jot gi demeewul woon noonu te itam ñenn ñi daan def yenn conférence yi nga xam ne conférence xabtalu la ak wax nii rek man yooyu teelu maa dugg te daf maa teel a ci daal nekkuloon samay jubluwaay li ma gisoon mooy wax ci xam-xam loo xam dinaa ci mën a jëriñ su ma ko déggul ci li daaw ma dem. yooyu yooyu ci ci lañu yàlla teral xër ñu topp ci noonu dem ci ba. am ci as tuut lu tax ñu mën a teewee yenn bërëb yi xam-xam nu ñu commencé di ko teewee yàlla àggale ñu ci loolu bañ dem dem université def formation dellu si loolu li ci nit ki mën a jëlee rek mooy yoonu xam-xam ak yoonu góorgóorlu ci diine moom tawfiq la boo xam ne yàlla moo la koy defal mais tamit góorgóorlu rek am ngëm-ngëm bi ak pasteef bi xam ne jàng du wees jàng du wees nit ki bu góorgóorloo def effort yàlla mën na ko baaxee noonu am ci loolu loo xamante ni ci mën a jàpp léegi loolu moo nekkoon loo xam ne mën naa koo baaxeegum sama bopp baaxee ko ñu ngi dégg sama waxtaan bi ci sa ci loo xamante ni sama wàllu jaar-jaaru dund la ak tamit yu bëri yoo xamante ne xëy na jarul trop ma ci dugu par exemple yu mel ne français bi français bi tamit aussi bi nga xamante ni dem naa ba université après gis naa ne waroon naa améliorer waat sama niveau français boobu tamit jàngaatuma ko ci kenn defaat naa ci ay effort def ci ay recherche yu bëri ci français bi pour yokkaat sama niveau na surtout français lang langage religieux bi pour wax ci nii exprimer wu correctement loolu dina xaw a jafe parce que tamit question d'habitude la tàmmuloo ko mais loolu maa ngi ñaan yàlla xëy na yàlla yokk niveau bi ñu dem ba am jot pour gën a mën a defaat ay formation pour def ko mais primaire bi lañ bàyyee mais góorgóorlu waat naa ci primaire bi laa bàyyee góorgóorlu waat naa ci tamit ba pour améliorer waat niveau bi tuuti yokkaat tuuti bagage bi ak vocabulaire bi parce que damay faral di déglu ak di lire yenn intellectuels yi nekk en Occident surtout ñi nga xam dañuy critiquer système bi am na ci lu bëri loo xam dama koy dama ko ci gëstu bu baax di ci waa ci wàllu culture générale dama koy gëstu anglais bi tamit même chose anglais bi tamit euh, nit def communication loolu dama koy def ci def communication di ci def ay recherche wàllu informatique tamit même chose informatique bi tamit euh, yàlla baaxee woon ci depuis bi nekkee nekk université jamono yooyu xawoon na tuuti bariwul woon tasaaroogul woon outil bi mais nekkoon ak benn euh, benn voisin de chambre boo xam ne mauricien la ku amoon niveau la ma doon fréquenté ko mu teel ma ci jox ay bagage pas rek xëy na nekk di surf ci internet wala di kii mais am outil yi nga xam ne moo lay may nga mën a comprendre système d' exploitation bi parce que moom Linux la daan utiliser ak Windows mais comme xamoon na ci code yi ak ci wàllu programmation bi ak yenn yi jàngoon ci moom tamit code HTML pour mun di di di di di di programmer di defar ay site ak yu noonu yooyu tamit jële woon ci moom ay base yu yu bëri doon utiliser Dreamweaver ak sama benn collègue bu ma amoon boo xamante ne bi moom bosniak la woon ñoo bokkoon classe moom daf daan sax programmer moom di defar ay logiciel euh, doon utiliser yenn yenn yenn yenn yenn kii de codage euh, Visual Basic la daan utiliser Visual Basic léegi moom tamit daan naa ko jege di jële ci moom lu bari parce que nit ku nekk rek ngay jànge ci moom dara ba am ci niveau ak notion boo xam des fois da ngay toog ak ñenn ñoo xam def nañ ci loolu formation di wax ñoom ci loolu wala nga def wan leen ci yenn leen di xaw surprendre tuuti mais loolu yëpp li muy tekki rek mooy loo mën a chaque fois rek loo mën rek nga am ci dara laal ci dara di dem ndànk-ndànk bul jàpp ne chaque fois lépp rek dafa war a jàppandi yomb nga soog koo am mais da ngay jéem di fëgg bunt yi di jéem tuuti di dajale di fu nekk nga am fa dara li ci des nga jéem a góorgóorlu dimbali ko yàlla jéem koo mottali loolu mooy kon waxtaan bi yenn détails yi du dina jafe tuuti ñu dugg ci léegi nag ku nekk ak ni koy déggee mais man li ma jublu mooy mu nekk njàng loo xam ne dinaa ci fàttaliwaat tuuti sama bopp lenn jariñ ci koo xam ne mën na ci jàngee ndax am na solo tamit dund nit nga jàngee ci nekkul lu ma jàpp ne lu eh, lu lu spécial la lu extraordinaire la xam naa ñoo xam ne bu ñettil woon seen dund moo gën a doy lool loolu sama jaar-jaar loolu xam naa ko bu baax kon nekkul ne dama ne dafa spécial trop moo tax ma ma mais dama jàpp ne am na luñ ci mën a jàngi rek wallahu alam